Euh, xasida yi day jëmmi sëñ bi xasida day jëmmi sëñ Tuubaa joo xam ne euh, waaye nag nañu moytuwaale phénomène bi ñu koy doxale ci phénomène bii ci am nii mooy euh, dafa am loo xam ne dañ ko war di jiital ci xasida muy pas-pas ci la si mën a jariñoo bari na koy dugg ci mboq jàng téeméer jaari bitu ba noppi yées ñëpp bari na kuy jàng ay lim yu baari ndax dangay gis kii naa man ab bisrien la kii ab jaaributien la kii naan ab nuur daari nie kii naan ab nangam na su ko defee loolu day mata waxtaane ci bas-bas bi ko war a lan yaakaar naa loolu moom gën a xam su ko defee loolu day laaj am na ay ay yum laaj ndax damaa gis ne bas-bas bi ñu war a jox xasida des na nitu xasida dëgg-dëgg ni mu war a joxe xasida ak ku dul nitu xasida koo ko xoolee war nga koo xam xàmmee ko bu baax kiy dund xasida kii kiy dundul nit ki mën naa nekk murit ta du am daraja yi dund xasida waaw xasida martaba la ci biir martaba yi murit ndax mooy kerkeraani sëriñ bi mooy kerkeraani sëriñ bi xasida bu mandee ci yow ba dugg ci sa biir ku la xool gis xasida ku xool xasida gis la mbindeenu Sëñ Tuubaa ci xasida dafa diis ndax xoolal lu mel ne tey siiru xasir ci misaal rek nee na koy bind bayit yu mu yàlla wàcc màggal bayit ba demal ba ba gi jeex bu ñu leen yàlla wàcc nag ñu ne ah si yëm sut li mu wax a nekke yàlla nee na léeg wàcc ba ci jaww di laaj ana kuy ñaan du ko def daal daal yàlla da koy wàcc ba ci ba ci ba ci suuf si nekk ci biir naa ana koy ñaan ma may ko kuy musul ma musal ko kuy bëgg ma may ku bëgg a si ci man ma jàpp ci loxoom bu ko kenn wuyuwul mu delluwaat fa mu nekkoon kon buñu la nee sëñ sëñ yàlla daa wàcc màggal xasida sëñ Tuubaa demaat war nga ko gëm waaye am na différence waaw naa ci ciy joxe ci misaal ci lu mel ne tasawudu sixaar tasawudu sixaar xasida la tasawudu sixaar xasida la waaye buñ buñ ko tuddee tasawuru si xaar ba mag ñi ba ko yaakaar na yëfi gone la déedéet ku bi giñ ko ubbi mooy tasawuru si xaar waaye boo ko ubbee fekk yëfi mag ndax boo dee ba ci biir ma nga naan wa kaw ne asan nasmi qaidan ila sabilihi l aqwami kulla man tala waaw wa ana xasa sirati mustaqiman fattabihuhu wala tattabiu subula kon kay wa kaw ne asan nasmi qaidan ila sabilihi l aqwami kulla man tala mu ne ko kan mu ne ko wa kawnuhu sahaadata sibyaani wa siibi wa subbaani wa niswaani kon mag ma ko fi bàyyi naan gone yee ko moom da ko yër waaye bu ko yëree fekk fa sa sa yëf waaw foo ko fekk fekk sa yëf te xasida gu yéeme la ndax xasida Sëñ Tuubaa xasida keneen ni nga ko mën a jàngate ci mën nga jàngat sax ci liggéey Sëñ ci kawe gum kawe ñëpp ndax booy xool ci mag ñi ku ma saan jàng xale yi boo ko jàngee muy lewal ak saan yi boo ko jàngee ñuy dal lay kaala solal la sa mbaxanam ci li cara muy wane ne yow yaay kaangum dëkk bi xalil moomee nga xam ne mooy terminalu xam-xam xalil moomee téereb suñ tubaab bi ne mooy bu gën a ndaw sa julli bu la faatiya képp am na bunt bu señ bi indi ci biir tasawur sixaar boo xam ne mooy bu téere bi mu njëkk a def nga xam ne mooy mooy téeréem bu ndaw am na sa sa julli bu yàqoo ni nga koy defaree ci lu gaaw nu fasil ni la ko sëñ bi leerale ci tasawudu si xaar boo fi bàyyee tasawudu si xaar ngir bëgg mu nga di xaar ba leen téere fokk nga am maîtrise su temps boo jànge ba àgg xalil mu doog la ko leeral loolu li muy firi mooy bidaayatul maahi nihaayatul xiyaar fa gaa yu baax a yem ba ma tegee sama benn tànk laa leen fa fekk ndax tasawudu si xaar ni sa julli te ni la ko tasawudu xaar leerale bokkut ak ni la ko xalil di leerale xalil dala koy wax ne la niire ba nga ne waaw mu ne la taraddud am na sikk wala mu ne taawilaani wala mu ne ne ah di taxawal xawlaani am nañu wax am nañu wax lii nga gërëm sëñ bi wax bu noppi ne la bila bilaa sakki ci luutu sikk sàkk wala mu ne bilam tiraay ci luutu barante te da koy jàng am sa xam-xam mbaa nga baax tasawur si xayrat sëñ bi dala ko bëgg loo ndax dana la jàngal am sa xam-xam ba noppi am tax a gaw dina ak alaxira lu mu wax ca tarjumaan ji mujj ja ana man hafisahu laa yasalu fi xabrihi munkaran wa nakir wa xayru wa xayru wa xayru wa xayru wa xayru wa xayru mooy lan képp koo xam ne jàng nga tasi xasida gi mooy tasawur si xaar am ci sa diine ba noppi jëfee ko te mokkal xasida gi mooy nga wattu ko daal ba xam li ci ne nee na kenn du la laaj ci bàmmeel bu dee kenn danaa ah xam-xam ak yi jàngal booy jàng boo jàngul nga wax waaye man daal amul noonu la ci wax noonu la xasida suñ tubaab wutee xasida keneen ku ne xam na ne daana def xasal li ñuy wax xasal mooy ku mel ne xëy borom xam-xam yu mag yi buñu masaana tarif xasida xasal mooy war a tagg sëriñ bi jaare ko ci dëkk bi mu nekk jaare ko ci ay way juram dëkk ba mu cosaanoo di wax ay gentam fa gent ba mu nekkoon di wax euh, nag yeen naan sàmm bëy di wax noonu baag si bi mu nekkee Dakar ñu fii di ñu naan ki wax waxal comme doon mu ne ki may waxal bu nga xamul mooy ki ki ki ki toogoon nekk fa ba yàgg mu nekkoon Touba jàng fa xam-xam jógee fa ñu nekk léegi ñu ne France la nekk am fu roq bu mu nekk di noonu lañ ko defee ku mel ne Ibnu Duraydi nga jël mu ne yonent bi lay waaye xësa bi mu def bay wax danga naan kii day léeg yaa sabiet asbaha sayin bi mahar tarxal xusaama bayna asjaari naqar naan ima tara rasi aakii dem ba ca biir mu naan waa daraw du lax wi yestan saawiyan min baadi maa xaj kaana ma jaaja sara loolu mooy la <coughs> xamul lu lu wax loolu fakkul lu maa laaqitu muxtafarun fii jan bi maa asaro satu nawa inal jadiday ni guddeeg bëccëg la bëgg wax ima isaamas tawlaya ala jadidin nangam nangam nga dem ca déeli yi mu ne la lan xarit jàddal foo jàdd jëm mu ne la bi mun aarigil idaabil wurradi bayna lisaa bi wa bayna saati armadi yaa ngi dégg nga dem ci lu mel ni xam si ya kooku sax moo tane ndax daal di tudd yan bi ci saas ndax nee na kay fatarxaa رقيك الأنبياء يا سماء أما تولت السماء لم يساوك في حلاك وحد حال حال سلام يكون وسنام xool nga dem ca nga dem ca burdu lu mu lay wax lu mu lay wax amin tasakuri jiraanin bisi salamin nga ne ah mu ne la masacca dam an jara min muxlatin bi dami nga ne waa kii lu muy lu wax lu doon mu naan ayasibu sabbu ana alxubba munkatimun maa bayna munsajimin minhu wa muttari nga ne kii li mu wax xamul lu mu doon lu kii li mu ne naan lawlaa hawaa lam turiq daman ala tarari wala ariqta li sikri baani wal arabi doo xam li mu bëgg wax lu mu doon loolu sëñ bi daana ko def njëkk muy dem ci géej gi waaye bi mu jógee ci géej gi da koo bàyyi génn xam goo xam ne avant muy kii doon na ko defoon na ko muy lu mel ne Hamad Souleymane bi serfi an masiyati kay maa taxoo de simaam yi li rasiyaat bi muy leeral Souleymane ak soxna sa ak yooyu yi ca xew waaye ku ne xam ne ne xasal ba guddut ndax balim tadamtuka yaa mawlaaya mu taq yan la wax min karida baadama tanoo kon kon xasal ba guddut am na mag mu ko mas a laaj ne ko lan moo tax bi nga nekkee ci géej euh, bi nga jógee bu njëkk nga daan def xasal léegi defatoo ko dangaa xeeb ñu ko daan defam da nga ko wóolutu mu ne ko ma leen ñàkk ma ko wóolu waaye damaa àgg ci sama foo xam ne nee na ma lu ma waxati ma def ko ginnaaw nee na lu ma wax lu ma ko waxati mu def ko nag ma yëkkatee nekk naan jàddal fii wala fas wi nii la meloon wala mbaam mi nii la meloon wala xar mi nii la meloon dama naan wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñu yaakaar dama naan yaa sawiyata ma ne yaqulu abdullahi wa ahmadu ma ne wa sallallahu taala ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman ñu yaakaar dama naan xarit ma ne alhamdulillahi allazi yusalli ala nabii muntaxa musalli wala ma jékki-jékki ne ahadu salli wala sallim noonu laa koy doxale rek nee na nag bi nga xamee loolu am na nag euh, xësal bi amatut ndax nee na ko ginnaaw loo xam ma def ko nag du ma xësalati moo tax xasida gi nag jàmbale yi ko sëñ bi def sëñ Abdou Lahad nee na xasida yi sëñ bi ne nanguwut xasida yooyu moo gën ci ñun murid yi te moo gën a gaaw ci fas yi yaay la suñ tubaab yi nanguwut la nangu kon ginnaaw li nanguwut mënuñu koo jox àq ja ja jam war lool rawatina kon la nangu kon ndax mën nañ ko jox àqam foofu la sëñ Abdou gisee ci pas-pasam moom si diggante ba sëñ tubaab mu ne li sëñ tubaab yi nanguwut loolu moo gën a nangu ci ñun ñoom kon xasida buñ koy jël rek am nuñ koy te fii may waxee yow xasida dafa xew ndax liggéeyu sëñ bi daa yaatu te sëñ bi mooy xasida yi sëñ seen xasida yi mooy sëñ bi te sëñ Abdou Lahad nee sëñ suñ xëy yi na ma lépp loo xam ne bu sëñ Tuubaa amutoon loola du am loola ci produit wu sëñ bi la bokk loolu li ñu ci mën mooy waa bàyyi xel waa këram yi lépp loo xam ne bu sëñ Tuubaa amutoon loola du am nee loola ci produit wu bi la bokk war nga ko def ni nga def sëñ bi kon jàng xasida mun ta yem ak mukk ku dul jàng xasida am murit dafa war a jàng xasida waaye nag ak murit mooy lan ndax mooy bu bàyyilaat rëy boo sot ak ci moxtu di xabar xabar yow sa jukki bu rëy yéegi sa góor di naan café di fa nu ñangaan jërëjëf suñu tubaab ndax loolu mooy ak murit déedéet murit bu ci ak nite génnee rek nekkatul murit murit dëgg day nite xam li mu war a def ak li mu warta def li ëpp def ak li mat def ak li jar a def nga di ko bàyyi xel teg ko ci nite waaye nag xaali xasiida nag mun ta bokk ak xaali murit kese ndax murit képp daa may xaalam xasiida wëlbati ko wala dugaat ci biiram te bari na xasiida yoo xam ne ba ko sëñ bi tëral jamono jii taxoon moom ndax day day tabax nit day rocci di day envoyé di supprimer lu mel ne nu daaree lu mel ne euh, xasiida wa kaana xaqan lu mel ne xasida tay siiru asir lu mel ne xasida euh, euh, matlu gi ñu koy waxee sax tuxfatul mutadarahin xasida yooyu ak xasida gi ñu wax mu faatoon u ak suñu waa ji jaalibut maraax googu moom day avocat xasida yëpp moom xasida yëpp jaalibut maraax mooy seen mooy saa suñu amee problème mooy taxaw rek la jaalibut maraax lu li ndax soo xoolee xasida googu bi xasida gu nekk xaal bi ku sëñ bi doon taalife am na xasida yoo xam ne poids doomi sëñ Tuubaa lañ yor ay doom ay cëf ka la yor sëñ xëy ñëw si im sotu ko doomi sëñ Tuubaa yi mu ne ko bu ma ko diggati bu ma diggati nga ko ay doom ay cëf ka la yor fam jëm ci yàlla sori te mun a ñàkk dem ba mu demee ba liñ ko saf gis gann ba mënatu dox mu daal di sakk Cheikh Mamadou Moustapha wut sëppi ko ko mu ba mën dox woyof tooy bi mu demee ba àgg ci diggante mu ko mënakoo mënatut a mu daal di sekk Cheikh Mamadou Fadal sant soññi ko ba woyof mën dem daal ne ko ku la mujj ci moom moo la gën daal ne ko ndax xam nga kenn ñuy wax Mouhamadou Mourtala mu ne ko xam naa ko mu ne ko du su ko wax ko ki ñuy wax sëñ Mourtala mu ne ko du ci moroomam kenn ndax moo mujj ci sëñ bi kulli yët yi moo gisatun te àqarat wa xëyru xëyraatin la day katu xëyraat moo tax sëriñ fa Cheikh Mamadou Fadel daana toog bu séenee siñu fal siñ si siñ murlaa di ñëw day jóg gàttandu ko bu jëm siwut ci moom mu taxaw ba mu jàll mu toogal am bés suñ fallu toog am ci mag ñi mooy mag ñi toog ci kanamu sëriñ toog suñ fallu daal ci kaw ci kaw daal ju taxaw si si murlaa mel ne ku jàll dem mu toogaat am ku ne ko ku xalaat ci mu xelam man waxu ko waaye ci si suñ fallu doo ko xam xalaat tam xalaat ne ak ah, kii di sa rakk rek ngay def boo ko gisee di di ko gàttandoo ko jóg ko def yëf suñ fal dal di dokk bi booba waax waax bu agsi ci moom ba mu xool ko a a gis muy def noonu ngeen yaakaar ne dara la lim safa diis loolu rek la lim safoon moo diis ci moom ak eh, yi yi kii suñu nee na ma mas naa toog ci biir mbooloo nii mbooloo mi toog mu ne man lekk ca cat la mu yor armaawul badrin moom suñ mur la ubbi ko nii di ko jàng nee mu mu teg baaraam bi nee na mu wax ba agsi ci sëgg ci moom nee na mu nee na mu ne ko ko nii waxut ak moom waaye da ko ne nii ndax gis nga lii ba mu ne ko waaw mu ko nii daan fa mu tawoon <laughs> kon loolu moo tax noonu la xaside yi toppantee nag xaside yi sëñ bi def taalif ci biir géej gi jamono yi sëñ bi nekkee ci géej gi soo gisee mu ne li xutta asmaana laj laj googu am na lu ñu koy ta te doonul loolu ak euh, min hustarallahu kë kë googu ak laj googu la ci sëñ bi tënk ca biir bokkut ak niñ koy firee xam nga doomu aadama bi bi ñëw fii ci France may nañ ko ay xibaadaat yoo xam ne yolamalal nañ ko ko ci lislaam lu mel ne mu dem takk ab tubaab boo xam ne du ab loolu may nañ ko ko sëñ bi ko ko borom joxee da ko ne man bëgguma xaraamal la loolu ci boppam moom ay wàññi julleeg ay yecce xaw ak yooyu yëpp moom da ko xaraamaloon ci boppam loolu moo tax ma naan lii xutta añ maana lii xutta asmaana laj ak minu minu sarallaahu ka minu sarallaahu la wax dama koo jaayante léegi nag bi mu demee ba Gabon léeg-léeg mu àgg foo xam ne day feex dell ba du mën doxati leer gi féete ko fu ba du am nu fa fu mu mën a sotti leer gi nag lu set lu ko mën a sotti ko lu mel soxna ma dema jaxate wala soxna fat jaxate wala keneen keneen da ko du gis foofa mu ñaan borom na mu yenkee wal ko ko ci loxo bi mu wàcc ci ci ci baaraam bi dugg si ci biir xëlëma gi mu def ko xasi yu teg xasi na koogee nag boo ko peesee foofu suñ seeni wu teg ñooy balancé am na ci xasida yi boo takk ci balaas foofu suñ fëlul takk ñu balaase ndax fa mu tolloon ba kooka di feeñ fi la toll te amul fu mu fekk fu mu ko feeñale mu feeñal ko ci xasida gi moo tax xasida distance am ak yaatu waayam ak température bi muy kenn mënu koo attan kenn mënu koo xeyaasal te bu ngeen di jàng sama xasida na ngeen koy bàyyi xel na ngeen solo laab jublu penku set setantal bàyyi xel ne saa su ngeen koy jàng ba mu koy bind na ma doon def na suñ borom doon def ak ay ak ay malaayikaam soo ko dee jàng te teewal ko noonu la yàlla di defaat àll ba day dikkaat ci moom ndax day day mel ne tey la woon ku ne xam ne jaalibatu maraaxib bi mu koy bind sëñ nee na day bind na moom nee na sëñ sëñ Tuubaa ci la déggee mas sa déggee baat boo xam ne ci moom la ko ci ci ci ci la ko mas a déggee te déggaatu ko naa leen sëñ bi day bind jaalibatu di bind di taxaw ba yàgg mu toog di bind ba yàgg mu jógaat taxaw di bind ca la ma sa dégg mu ne ñun duñ ñun duñ nit wax na si yem sutu yi sutu mu ne ko mbàkki mu ne ko sama sang ba de xanaa war na maa sañ ci moom lu kenn sañut war a mën a am ci moom lu kenn amut mu ne ko ko tax ma wax ko mu ne ko mbàkki ko ko xam jël mu ne ko dama ko jaar fu ko kenn jël ndax jaayanteeg suñ tubaab bokkoon na ci soo agsee ci turu yonente bi da koy wutal mandarga soo agsee ci turu suñ borom da koy wutal mandarga looloo waroon daal di xonq ci loolu moo doon daaju xong ci bi mu nekkee ci géej gi nag daaju ji daa jeex te waxoon naa leen nag xasida gu ko ko nee na ba xëkk daaju xong ji jeexee mois si turu yonante bi war koo xongal te daaj ji jeex na nee na mu war war a amul daa te temps baa ngi dem nee na mu daa waaye nee na ca ga ak jaayante ga nee na daa gën a ñaw nee na mu wot loxo bi di ko ci sapp nee na mu wax wot loxo ko ci sapp sëpp nee na sapp na ko juróom-ñaari yoon dara ji doo ko génn mu bind ca turu yonante bi doo ko jàng yaakaar naa kooba kenn mosu koo fekk foofee ca yonent sallallahu alayhi wasallam moo tax mu am ci lu kenn xamul kenn amul xasida day defar nit da ko tarbiye tarxiye ko tasfiye ko dindi ak nitoo dugg ci moom bari na ko ñaan xasida ko dofloo moo indi ndoxam dugal ci biir xasida waaye dafa ci dofloo bari na ko ñaan jëli butu da koo sayloo déedéet moo yore rabam indaale ko waaye jëli butu sayloo woo ko déedéet nañu bàyyi xasida yi ñu tumal naan day defee lii day defee laa déedéet ñoom lu baax rek la ñuy lu baax xoolal jëli waxam li kulli man yaqra'uhu képp ku koy jàng na nga ko may saxaadatan wa barakatan wa xaafiyatan fi daarayni kooku amul lu dul baax te suñ jubaa neen sama yaakaar yëpp mi ngi ci jaale bi tu ma raxe murtajiyan la wax kaw nii qadiman asna wax na foo sa biir maqaran asna li may sàkku lépp mi ngi ci xad rumtu min rabbil bara yaqid ma li mel bi jaay yi kafaani sadma boo ko dee jàng di ko jàng di ko jàng day mujj day def ci yow kas li ñuy wax kas da koy dindi doo amati lenn loo xam ne dana dox sa diggante da ngay xam loo xam ne kenn waxul ko di gis lu kenn gisut kas fan yuril xuyóoba doon xaj bi la wax jàng bu jàll bi ba wax di bokkaale munta ne yaa kaafiyel israaki wa tabdili la wax kenn munta indi ci sa kanam ba mu yëngal la bu doon dem ci yàlla ka ñëwit mun la yëngal ndax li ko sëñ bi la ndax bi nga xam ne talif na ko te doon liggéey liñ doon waxtaan ci Sëñ Tuubaa nii bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy extra bi mu doon def pour liggéey bi ba xam baax naam baaxut Jalbatul Maraaxib la di ko bind ba nopp sànni ko ci géej gi ne bu ci wenn araf faray rek ma liggéey bi baaxut keroog bi mu tegee tànkam fii bi ci la Jalbatu bi génn ñu indi ko ko mu xool wenn araf manqué wu ci boobu waxam bi ku li mën yaqra'uhu saaratan wa barakatan nekku ci woon mag ñi di ko daw ñu naan day dofloo di ko tere mag di ko tere gone yi naan da leen di def lii da leen laa day tax nga nangam day tax nga lii day tax nga day tax a ñàkk jëlwut marax day may xaalis wal takk naa biha kasa waaw soo ko yoree da joxe waaye kenn du la jox soo ko mënee da ngay joxe waaye kenn du la jox sëñ bi nag bi nga xamee ne loolu am na sëñ bi daan ne seytaane la moo leen koy ragal loo damaa sumbi sama bopp ci jëlbutu sumbi ko kii ma sumbi sama bopp ci moom nag moo tax ku ko laal di man may yow laal gi nga koy may man may yow te seytaane sama wextaan xëjut ci moom moo tax da koy ragal mu bañ kenn laal ko soo ko laalee du man ci yow dara moo tax muy bañ nga laal ko moo tax mu dugal ci seen xëy naan day dof def na waaye nañ ma indi xalima ma ma ma ñemeloo leen ko. bi ñu ko indi mu daan ne waxam li kulli man yaqra'uhu saharatan wa barakatan wa aafiyatan fi daarini daana xanaa da ngeen ko ñeme ñu doog koo jël tàmbali ko ñeme te boo xoolee yaa amiran xayra wala bi asbala xoolal loolu sëñ bi kamaa xasamtuhu biha wal xasba la xool ni mu indee laa xawla wala quwwata illa billah ak bismillah yi te fa mu njëkk a tàmbali xasida gi xool ko mu ne maa ngi waaj a wax yaquulu la wax maa ngi waaj wax dana wax maa ngi waaj a wax ñu ne ko kiy wax ko mu ne Abdoulaye ñu ne ko xamuñu la de bu ngeen ma xamut ñu ne ko xamuñu la ba tey yaay kan mu ne man xatti yi ma man sumaatuwu man maay liggéeyal ki nga xam ne autorom Muhammad la tudd ñu ne ko ko ñu ngi lay a xam léegi nag lu mu doon mooy daan lu mooy waaj wax waaye ci yàlla laa koy tàmbalee ñu ne ko wa huwa rahmaan bi mu ne bismil ilahi ñu ne ko koy kooku mu ne wa huwa rahmaan ni mu ko ko koy rahmaan mu ne wa huwa rahim ñu ne ko koy kooku mu ne xaadalil amaanu moom wamatal li ma bëgg indi ma ko kookoy kookoy mu naa ne alhamdulilah alal kitaab bi alal kitaab bi nga may tàmbalee sant ci téere maa safee mosa bi na kitaab bi xool bi mu waxee ne mun tamisan la wax mun tamisan min maliki an yan faa kon kay sëñ bi jële bi mënut a def lu jëriñe ah. nga xool mu fàttali bisri mu fàttali bisri moom moom bindin wi rek boo ko xoolee xam ne mbirum yàlla la te nee na bi mu ci njëkk bind bi mu ko bindee ba àggal yonente bi ko këf yóbbu suñu borom ne ko bindaat bi mu koy bindee yonent bi daa toog muy bind nee na ba mu àggal mu këf ko ko bindal nee na Nuuru Daarayni moom sama borom ci moom moo sàkk mu bind ko moo ko yonent bi boo ko bindee ñu defal nangam nangam nangam moo tax ba mu signé ñoom contrat ba war a dem mu naan lam tan sa nii raddi wala moo tax kare ba mu sëppee xalima di bind Nuuru Daarayni ba mu sëppee xalima ga ca njëriñ ko taf ci ci ci ci ci ci kayit gi xalima ga daa sar bu bënd kayit gi nee na mu wax suñu borom ne ko daa ji may bindee moo foor xam ne li ci xel mee ko gën a foor fooraay boo xam ne li mi ñu ngi koy wal ci xel mee ko gën a foor ba ëttanu ko kon soo bëggee mu bind ko jox ma kayit gu ma ko bind ni nga ma joxee daa ji moo tax suñu borom nee na moo nee na suñu borom moo ma jox kayit gi la si aataytuhu midaadi xalal la si aataytuhu xirtaasi xalal la si aataytuhu aqlaami kon xasida du xasida nii nii day def di jindi xasida day def jëjëf ji da xasida bu la noppee bu la bu la noppee bu la noppee defar bala gaalibatu ma rax day tarbiya tarqiya tasfiya te bu njëkk mag ñi mag mag ñaa mag a mag a mag waxuma mag sëñ Tuubaa mag dañ daan def bu déggee sëriñ bu nekk ci penk bi boo xam ne day tarbiya ñu dox téeméeri at ak téeméeri téeméeri kilomètre ak juróom fukk fekk ko fa mu tarbiya leen waaye sëriñ booba benn kare képp la am ñu doog a wëlbati ko nag léegi ne bu ñu tërbiyaa ba noppi ñu soxla tarxiya mm-hmm. ñu ne am na bu nekk ci gànnaar bi boo xam ne day tarxiya téeméeri kilomètre danga danga ko dox ak juróom fukk moo doog laa ñu dem foofa bu doxee foofa tarbiya woon nañ fii ñu dem foofa ca ca sow mu tarxiya leen mm-hmm. ñu doog ko nag dégg sëriñ bu nekk fii ci Saalum boo xam ne day tasfiya ñu dem mu tasfiya leen bi mu leen tasfiya ñu doog a dikk nag taxaw nag di xool seriñ bu jàpp ci seen loxo yóbbu leen ca yàlla ñu doo ko doxal ci penk bi téeméeri kilomètre juróom fukk doo ko fekk foofu ko di jàpp ci loxo suñ tarbiya tarxiya tasfiya jàpp ci sa loxo yóbbu ci yàlla doxañ ko ci biir jeel bi moo tax mas na koo bind bi ko bindee ba noppi ñi ñi nga xam ne li tax mu bindoon ko weesuwul dana baag ci xaal boo xam ne mënatut a jaxasoog mbindeef mënatut a jaxasoog mbindeef mu daal di wax ne taalib xasida gi teg ko am na ku ma sa ñëw ci moom ne ko dama bëgg ku ma tarbiya tarqiya ma tasfiya sëñ bi ne ko loolu ak taxaw la laaj te yéen mënatuma li mënatu mënatu leen maa jege ndax su ngeen ma jegee xetuk medd ngeen may xeeñ ndax xetuk sama borom gi may xeeñ a tax daal yëkkati xasida gi jox waaye boole naa la kii doo ko jàng boo xëyee ak bu ngoonee kooku bi mu jébbalu ci sëñ bi loxo bi daa damm bu mënta tàlli dafa làggi waaye bi mu jàng xasida gi daa xëy gis loxo bi di def nii di taali aka a banku ci barke bi jàlli bitu maraaxib te noonu loolu ko jàlli bitu maraaxib ma xe ma ne boo indi woon gënu xasida noonu la koy ma ne xasida yëpp a fes ak doole waaye xasida gu ne ak ku ne kala jàggi ruur man ci sama gëm-gëmu bopp man am satu man am satu nga xam ne damaa du ma noonu am de amul loolu amul xam nga waaye dama ne maa koy wax ngir man loolu laa gëm man damaa jàpp ne suñ tubaab bi muy ñëw jamono taalif jël bi ko taxoon jóg loolu laa gëm sama gëm-gëm la man waaw jël but rek ko taxoon a jóg buñ ko taalifee ba nag daanaka li ci des yëpp ay formalité la rek waaye jël but rek ko taxoon a jóg loolu mooy sama gis-gis man ndax foofu la ma jëli butu yóbbu waaw day doon nit koo xam ne day fel del del del nee na bunt yi yëpp buñ leen dajalee bunt bu mag bi ñu war a jaar pour ñu confirmer leen mooy jëli butu maraxib wasalli man alayhi wacxali nisaab baabarida baabarida la wax maa ayaa di ko ni am na loo xam ne jërë rek jàng jàng bi su ba maraaxit waxat la ko jumlata maa taxtal jërë jàng jàllale tu maraaxit si am murit bu jàngut jàllale tu maraaxit it araam na ci am murit te amu ko waxat li man xafisahu aw xasala wala mu ne aw ahaana ala taxsiliha képp ku sonn ngir am ko képp nga dëkk ak yonente bi salaa salaam te waxoon na si ne ko na ngeen góorgóorlu ci xasida yëpp baax ñuy wax jàllale tu maraaxit ak nuur daara yi ngeen ko di na ngeen ko di am daan ne ko sa sa sa yenn sa sa xamal na ma kat ne ma ci mbég moom ci mbég nee na ku ko am boo ko jàngee boo ko jàngu waaye yaa ngi koy wagga teg ko fa nga ko war a teg yonente bi warloo naa ak yow nee na ay ay bis gu jot dina ñëw jàng ko tefli la ko demaat ay bis gu jot dina ñëw jàng ko ba mu jeex mu tefli la ko demaat. jàng rek man de jàng rek. te xasida Sëriñ Tuubaa ma xamal leen ci lenn ki mun wax nga xam ne daa muuma moo gën a mën a jariñu ci xasida Sëriñ Tuubaa kiy xool rek kon waxab lu woo jumlata maa taxtaaru te waxutta maa alayhi min suno bi la wax waxutta maa alayhi min suno bi faral lépp loo xam ne nekkoon na ci moom ci ay ci ay ci ma ne suñu borom dogal na ah waaw loolu na ma koy fare nag loolu da mu ne ko yaa maari an bi jaay sunu bi yow loo far mu faru ni nga fare samay bàkkaar man Ahmadu ba muy bàkkaar faraleel ma ko bàkkaar yi kii jàngi jari bi tumarax waxutta maalihi min sunoo bi yaa maali an bi jaay sanoo bi wala mu ne yaa maahi an bi jaay sanoo bi waxam li man yaqrahu aw yaktubu képp ku ko bind maamu jàng ko na nga ko may xayral mu naa xayral mu naa mooy lan xëyru mën a ma ngi ca biir xëyru xëyraat li nga gën a fonk ci ba tabaxu kër gi da nga ko cay denc tabax ab bâtiment ca biir kër gi da nga ko cay denc tabaxub néeg def ko ca biir wëlis foo bëri soo dugalaat ko ci wërin wëlis denc ko ca soo ubbee loolee li man xafisa woo ku ko mokkal aw xasala wala mu am ko mu ne ko da koy am da koy wuti da koy àbb wala da koy mu ko bi ayi wa ci nu mu def am ko baax waaye naa ko am rek bi nabi yi amala kon jaalibatu maraaxib jëmm la jaalibatu maraaxib li muy def ci doomu aadama kenn xamut nu mu mel ndax dafa am lu nekk ci moom loo xam ne xasida yi mu nekk bëriw ndax boo xoolee yaaman bii yi ci nekk yaaman bii yoon xo neñ taaminu yaaman bii yéen xo jihaadi këramu yaaman bii yéen xaaturi ujur yaaman bii tan xo neel taaminu yaaman bii yooyu yëpp boo ko xoolee yaaman bii ju nekk lam ca teg xalimaa ko nee na bayit bi nga xam ne bi ma ko moo gën a reetaan loo yonent bi gën ko bégloo ci jële bi du mën mooy yaa ma yëqud lii ma axtar ndax nee na bi ma ko waxee dama bette yonent bi bi ma waxee loolu yonent bi daa yaakaaroon dinaa ci teg leneen bu taboo sañ borom laay wax ndax dama ko ne yaa ma yëqud lii ma axtar mi nga xam ne li ma bëggoon lépp yaa ma ko indi nee mu yaakaar danaa ko sant naa la wala a naa la mu ne ko salli ala man ismuhu muxtaar yonent bi tiit jug ne ko ahmadou bett nga ma jàppoon naa ne da nga wax leneen lu dul loolu ndax fu mu teg yonent sallallahu alayhi bi mu si ba ci euh, sali bi si ma xalaasil faraji badri tamaam bi ci la ko boromam ne ko na doy na li ngay wax doy na sëkk sëkk sëkk yonent bi jug taxaw na ko li ngay wax doy ci la doo ko soppi xëlimaam nag naan ko euh, euh, yaa rabbana sali wasin samala xalaa karim kulluhoo xalal basiri xalaa nangam waali wasa bi wax fir liman nag waaw daa dooga léegi ginnaaw nag nee naa yem foofu doy na léegi nag kii koy jàng la bëgg garanteel ma ko ci yii may ba waaj wax yonent nee na suñu borom daal këyitam ak xëlimaam nee na may wax muy bind waaw nee na ma ne ko nag waxab loo jumlata maa taxtaaru dëkk ak wax fir lu kulli man yaqra'u ak wax fir euh, wasalimin alayhi wax fir yaa xafuur wax fir yaa xafuur li qaari'ihi waalin bihi nafuur na nga nooyal xolam ba noppi jégal koy bàkkaaram yëpp te lum lum lijjanti kon lijjanti waxab li man waxab li man yaqra'u maa yaxbitu bihi siwaahu yaa jamee ni sutu xoolal loolu sëñ bi waaye xool bi mu agsee ba ci tarjumaan ji nu mu ko nu mu ko defee soppi mooy xalima ga loola leneen loolu xam ne mënu si ko wax ci rajo mooy ni mu saasee bëru bi ne yaawoon amar sax xam nga ina laa ina laa malaykatu yu selloo na la wax teg ca la béyka rab bi mama see waxut ne xaa ilan xalaa akram xexe waxut xaa ilan xaa ilaa la wax ah. bi mu demee ba ci biir ne ne amartana la wax amartana mu yaayoo la si ne amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ina laa malaykatu yu selloo na la nabi moo tax mu ne amartana bi an nusalli ala kon kay sayidina manil bariyata ala kokkal la mu ne muhammadin wa an nusallima ala yaa baaxeen ab xeeta saramaal xuda kon kay fasar fasalli sarmadan moo tax bi mu agsee foofu mu ne yaa man amarta sawil imaani kulluhumu yow mi nga xam ne yaa digal képp ku dib jullit loo leen digal bi an yusallu ala almuxtaari fi rusuli léegi sama xasida gi lépp ay julli la am na yoo nangu wut na ci ñeneen waaye sama bos laa bëgg nga nangu ko mi nekk bala na salaatan xat nafastu biha mu ne ko yéen ak yéen mu ne ko nas man li wàcci ga way yi ma way laa wax yaa man xat maa gasali daana ko nag faq bal nizaam ko dafa fonk jaaribitu nas man li wàcci na faa yem waaye faq bal nizaam yi wax ba noppi nag wasax yi ak jëf yi kullahu karaman daf koy taraanga ah, wala tarudda la yaadan lii min al amal faqbalu minni fadlan laa munaaxasatan ay ngëneel ki bëbbal yoo xam ne doo ko joxe ci keneen keneen du ko amati ku du kii jàng jàll bi ma rax waxut bi xëy na ana li bii amali uskur bi fadlika sax yi maa ngi ñaan maa sant bu baax di la gërëm ci ngëneel yi nga ma jox ba ma mën a def jëf ji war na yenn bii yaa bi bii surtout sa hadi wala amin antal karimu la si aqi takar mu ko yaa xayri hadin hadaani abdal subali kon ku jàngatu maraxib mënoo dëng ku jàng jàll bi maraxib mënoo dëng koo gis muy jàng jàll bi maraxib dëng rek jàngut jàll bi maraxib daa ànd ak moom te nag jàpp jëli bëtu bukkut ak jëli bëtu jàpp la am na ñu topp ci jëli bëtu bëgg jëli jàpp leen te jàpp gu leen waaye ku jëli bëtu jàpp boo ko xoolee xam ko te way wi li ko gën a tax a nag bi mu agsee ci mujjantal gi foofu nag la la la la dawa yaram la dawa yaram ndax dama ko léegi daal ci gàttal du mën nisaama du mën nisaama ilaa sax yi si haa bi xaddama si allahu akbar xoola loolu du ma nisaama ila sax yi si xaabi xadan te nee man lu ma waajo lu may wax rek dama koy confirmer di ko wax ni waaye fekk na mu am bu yàgg suñ borom moo ne ma ni nga may ñaanee neex waaye loo bagage yëpp sa tur laa def ni nga ma koy ñaane rek a neex ci man ndax prise bi nga koy ñaane ni nga xalima gi koy ñaane mooy rob prise bi ba yëngal sama aras may xam ne maa yàlla sa xalima mooy jaayu ci man ba ma xam ne maay may rabbul si jëlaawul ikraam ni ma koy ñaanee neex waaye bagage yëpp sa turu ci nekk maddali yel xusna wa maddali sayat man li yaqulu haaka qablu maddi yat soo naa ma may fekk ma ngi la jëlal ba noppi moo tax mu naan wa alihi wa sahbihi yaa man jaxal maa nag ma defal nangam fan jaxal far nga def wa alihi wa sahbihi yaa man jaxal xatti ka xidmatil xiyaari sama mbind mi na nga def mu mel ne liggéeyu gaa yu baax yi fi jaaroon ba nga leen te suñu tubaab buy ñaan dara bu ne tey ji waccal bii nas mi faw xasaw bi du jege ni maanaam ak koor nii rek de koor gu yàlla nangu ba teg ko fa nga war a teg la ba wax waaw waccax li waccekal karimi xatti barakatan xatti barakatan lil wésri saati xatti taw boo xam ne day taw di xéewal di taw yi xéewal yoo xam ne fii ba ëpp na tukki mën na koy taw te du sirit nee na gën a kawee sama xasida yi waccal bi jaayil Moustapha xuruufi min asami buróori wal mawrufi lépp lu baax luñ xam wala maarifa di ko defee wuti wala mu koy yóbbu ci yàlla wala lu ma doon ne ko sama xasida yi gën a sama sama jaalibatu bi gën a gën a a gaaw ca loolu waccal bii nasmiya faw sama xasida yi nag mu ko defal mu gën a kawee koor goo xam ne sa jaam da ko woor ba nga ne ko gërëm naa la ci koor gi bibliothèque ba ko def ne ko sama xasida gi gën a kawe kii jàng sama xasida gi waccal bii nasmiya faw xa sawmi ba noppi nag ginnaaw boo ko defee ba noppi nag am na leen loo bëgg a loo xam ne du ca muy waxee yi wa xayrihi min maanihaati law mi lu mel ne aj màkkaak natt asakaak yi ca des doxu mbokk yëpp kii jàng jël bu tu ma raxit te yaa ba ji te nit di refe loolu di ko am kii jàng bu ma raxit te settante ko def ko jox ko àqam moo gën a kawe loola wa xal li tafsiri wa taamina lii abadan maharida amina moo tax xa xas jaalibatul maraaxib euh, buñ la nee mooy awakaab xasida yëpp boo ko xoolee fi ne boo demoon ci nóor dari nii sëgg ci moom bëgg am looy liñ la jaalibatul maraaxib taxaw ci sa kaw ne la wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalihin watira amutoo lay wax waccal kitaabati ya kal ahmaali saalihaati gars yu baax yi seen jëf yu baax yéena ñoo yàlla ba wutal leen seen saal boo xam ne saal individuel la boo xam ne kenn du leen ci fekk sama xasida yi na ko kawe waccal kitaabati ya kal ahmaali saalihaati li yoxut amaal yi kon ñun xasida defaluñ suñ tubaab yi tax mbay bàyyi ñu ko waaye nag ñàkk jox gëdd tax na man damay wax ne adduna sépp dañoo waroon a jël xasida yëpp denc ko ci bibliothèque benn xasida du génnati ñu jël benn xasida képp muy gis bu ñu teg ko ci taabal ji muy faj addu muy faj aajo murid ak adduna bi ba mat ñaar fukki at ñu xam ñu gën a xam dix dix saa yu xasida su ko defee su ñaar fukki at yi na ñu naa ñaar fukki at yi léegi nañ noppal jos bu fee te génne ma waaye bu léegi nag seekal bépp adduna bépp maayo bu rek moo fi dox ko am aajo ma waaye boo koy faj ba maata ñaar fukki at wala fanweer ñu doog a génne mu xadamaat waaye fi ne xasida yi jóor gi ñu ko jóor ci suñ kanam kenn ku nekk jël benn dinaan mooy sama bos moo tax mënuñoo xam itte ji ñu ko war a jox looloo tax fokk ñu joxaat ko yitte bàyyiwaat ko xel xasida dafa dafa day sëñ Tuubaa lu sëñ Tuubaa di yenkee wa te te nee na man sama mbind mbindum sëñ Tuubaa daa bokk wabi kalaamiya wabil isaara ihdi muridan la wax nee man uhum rek moo ko waxee sama sama murid gindee ko tegee ci salaatu mu saxi uhum uhum rek boobu kalaam yi boobu isaar la wax siim sut jaxat bi mu dikkee bi coow li baree ci bi di yooyu la tontu da ko ne Mbàkke de xanaa jël bi tu moom càkkutéef la ci ñi sàkku dara mu ne ko am sutu wabi wabi kitaabati rabbi rabbi kullu mutaalihin li wa ci rabbi loolu la ko sëñ bi tontu ah kon de kon mu yëpp war nañ cee jóobu sóobu te te góorgóorlu ji mu ne ko bi kalaami yow bi isaar eedi muridan foofu rek la yem nag moom eedi muridan kon maanaam bayit yi jaalibatu maraaxib ak nii nii yàlla ni ni ko yàlla mayee suñ tubaa ndax boo xoolee askuruhu sukran yajuru sayda bisri askuruhu guugi bokkut ak sakartuhu ahmaduhu bokkut ak askuruhu boo xoolee lu mel ne jës bu boo xoolee ma ngay wax naan alhamdu lil haqqil mubin alhamdu lil haqqil mubin ñu ne ko kan mu ne man kawnuhu li yabin ñu ne léegi buntu boo jaar ba mën a am loolu mu ne alal kitaabil mustabin maa jami yi niam xam lu lu mu teg ahmadu rabbi alxasim boo neyaate ba ci biir lu mu wax askuru sal xasin majid la wax kon ahmadu rabbi alxasim bokkut ak askuru sal xasin majid waaye askuru sal xasin ma jiit am na lu ko gën a garaaw muy sakkartuhu is xasani bi xidmatin askuruhu waxaadali abdala bokkut ak ahmaduhu ala xurujin min dar te te suñ tubaa bu ci biir jël bi te am ñaanit ci ñaan boo day mel dama bëgg nga defaloon na ki jàng jël bi tu nangam comme ni nga ma ko defale loolu lu rëy la sëñ bi. ni ni nga ko defalee sëñ bi. mu ne ko ne mu ma ko defalee noonu ci kooku. kon ku jàng jëli butu am lu manqué wala am lu ñu war a confirmer rek xoolaatal sa bopp. jëli butu say loo wut xasida ci boobu moo defut dara. xasida ci boobu moo defut dara saa na fay bilaa dara yi. na si yëm sutu suñ tubaab waxoon si yëm sut na ko am sut de sama borom bu ma yebaloon ci tubaab bi ne naa fayu ji danaa ko wax mu defal ma li fayu ci nit coxor gi nekk ci liir ba mën a fayu danaa ko ñaan mu defal ma ko ci man ndax daa nekkul ci man nee na man njariñ rek laa man mënu maa def leneen saa naf bi laa dërëñ daana waaye nag sama moo taxaw taxawaayam loolu ci man fayu nee ku ma wax lu dul noonu maa nga def moom lu noonu sama borom mooy jug taxaw ndax moo ne ma ginnaaw def dindi naa ci yow lii fayoo bàyyi ma taxaw taxawaayu fayul la goyee suñu bon duy jël aw yet teg ci wetam jël wu xeer teg ci wetam jël fetal teg ci wetam jël jël lu ne teg nga dégg kuñ ne dañ ko dóor bal fii léegi mu faatu nangam na moom kii tawarkaal fekk na am na lu mu tooñ sëñ bi suñ borom daal di jël fetal ga yebal ko ci kenn jox ko kenn mu ko réel dangay ko génn am na loo wax xam ne suñ borom mu xaañ la ba kenn mën dara noonu yoo xam ne ku nekk nag fa sa mustawa toll ngay wax rek ak pas-pas bi waaw lu ma leen ci wax rek da a daal gis seen seen li ngeen leen ko waxee waaye tey loo xam ne xasiida fu nit àgg fi may waxee moo ko faagale waaye nag suñ tubaa dafa bari ay roqu bul jàng xasiida ba waa kër suñ tubaa duñ can déedéet déedéet bul jàng xasiida man du ma siyaareti kenn du ma du du man sëñ bi sëñ tubaa mu jox ma jalbitu maraaxib ne man naa nga déedéet déedéet jalbitu maraaxib bu la joxe dara bu la ko joxee doo ko wax xasida bu la amee fu mu la dëgg dëgg dëgg am na fu ne da ngay rëcc rek di wax waaye lépp mënoo ko wax moo tax xoolal lu mel ne wakkaana xaqan bi ko sëñ bi tarif ñaari yoon waaye xoolal bi mu ko tarif ci gànnaar xa jël euh, wakkaana xaqan daa nekk ci géej gi génn ci géej gi demaat ci jéeri ji xam nga ne dafa njëkkoon wax te as as xib as xib la njëkkoon wax ah, ko ne as xabta as xib ku ne xam ne ne bokkut ak as xabta nafaxta naa bokkut ak nafaxta hum te xasida googu bi ko bi mu ko bindee ci gànnaar ku ne xam na naar yooyu nga xam ne ñoo taxoon sëñ bi bind ko ak la leen taxoon a jóg yi yitte dañ amoon ñu gis ne yonente saa salaam am na kum ca ko xutbu xutbu bi nekk ci kaw suuf yor jëf yi borom jamono ne leen bu ngeen demee mu defal a dem ko fekk ci guddi gi yi war ñëw ci la sëñ bi talib xasida gi jox ko seen suuf bi ñu àggsee wax seen i décor wax seen lépp wax àggal seen su suñ tubaab daan na seen suuf dafa indi la wala déggoon mu daal di génn xasida génne xasida gi daal di teg bi mu génne xasida gi sëriñ jox naar bi bi naar bi rek nangam jeex na nangam jeex na nangam amut yaa man dara nangam amut yaa ji man dara mu daal di fa xasida gi jox seen suuf ne ko joxal naar ki ki ki mu jox ko ko mu daal di tàmbali di jàng fi mu taxaw rek bi mu tàmbalee jàng rek bi naar bi tàmbalee jàng rek waxtu noor la waaye dafa xiin daa tàmbali di taw bi mu ne wajjahtu kulliyee bi xam ne wa sukkuur rek ci la taw bi tàmbali di taw siim sut nee na waaye li ma jaaxal mooy man maa ngi taxaw sëñ baa ngi taxaw naar yaa ngi tooy xëpp waaye fi ma taxaw dara tiimu ma sëñ bi dara tiimu ko te kenn tooyut ñu ñaar sëñ Tuubaa mi ngi sëñ Tuubaa mi ngeen jàpp sëñ Tuubaa ni an sëñ Tuubaa bokku dëg sëñ Tuubaa fa mu nekk dafa sori kenn mënut a àgg ci sëñ dalay gàttandu rek yàlla nañu gàttandu boppam ci daraje xasida yi ñu ngi jégalu baax ngeen kii bi te itam maa ngi waaj a kii maa ngi waaj a sonn gis nga sax am na kii ba la boo xoolee lii lépp fii ay xose xose dañu bindal la waaye dañu accès ba téye micro bi suñu tubaab daal di fàttali la ngeen lu bees takk loo xam ne moo a yaakaar naa moo gën a riis loolu ñu gën ko bàyyi xel waaye nag na ngeen xam ne am na yeneen at yoo xam ne buñ ci àggee Sëñ Tuubaa ak ni mu demee Gabon ba dikk xasida yi fi ne dama ko raay raay ci kaw waaye duggaguma ci biir si xasida ndax eh, jaaribatu mi nappeeguma ci maanaam lu mel ne yi nooru daare ñi mi eh, diggante ak Sëñ Saliou ah diggante Sëñ Saliou ak Nooru diggante Sëñ Saliou ak xasida diggante Sëñ Saliou ak Sëñ Tuubaa fas fasam ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa Sëñ Seex lu tax mu nekk mujj nekk xalifa yooyu yëpp am na ay yëf yëfaan yuñ ci mën a yuñ a wax suñ jàmbaar ji nga xam ne ñu ngi koy waajal itam ku Cheikh Abdou Lahad nga xam ne ñun ñëpp ko war a sant delloo ko njukkal kenn ku nekk am na cinquante pour cent ci sa sa murit ndax du wër moom dara du jàkk ndax moo ñu utilisé Matlaboul Fawzayni moo ñu ko génneel dafa ñu ko leen bëgg ta yaakaar yi Sëñ Tuubaa jooje mu waxoon ne am naa ci moom yaakaar yaakaar naa loolu fee ñaan na ci suñu diggante ak laa Abdu Lahat ci dox yi wax na doxal na ko te boo xoolee jamono yi Sëñ Abdu Lahat feeñ xoola xoola yéen a ngi dégg Tuubaa li xew fa nii ay ñu fay woote naan Sëñ Tuubaa nii fay woote ci biir yoo xam ne kenn mosu ko woon a dégg jamono Sëñ Abdu Lahat amoon na waaye nu ko Sëñ laa Lahat diggante daa yónni ay ndaw dinañ ko gëstu la ba ñëw ndayooñu ci wax ko wax ko wóor mu gëstu seen kër yi ndax ñooñu dañ daawul jullee ci jumaa ji daawul fi si mu ko gëstu ba xam ko waxtu guddi rek jël otom taal ba àgg ci ñoom ñooñu jóg ndar nuyoo mu neen nuyoo bi gën a wóor ci jullit daal mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daal toog foofu na leen kas buñ jógee kenn rek bëgg a joxe loxo mu ne daal mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi bëgg na a wan ne am naa la ma mer te ni yéen ma ci dëkk bi doon ko gëstulu bi ma koy gëstulu nag ba mujj ñoo ma ko doon ma ca waaye lañ ma wax teg ci sama bët mooy gënal gëstul naa ko sa bopp ba xam ne lu ma leer nañ la nag bu ma jàkkaarloo am na leen wax moo tax ma ne naa fi ñëwal sama bopp yéen kat damaa dégg ne da ngeen fay nekkoon nekk ci dëkk bi mu mel ne da ngeen fiy dunde di def li ngeen fiy def waaye yàlla dogal mu mel ne suñ jumaa ji da leen a doyut ji nag ginnaaw doyu leen damaa yaakaar ne xanaa ab dëkk bu la borom ab jumaa bu la doyut nit bu la jumaam doyut ab dëkk wóoru laa doy ma bëggoon daal ginnaaw jumaa yu doyu leen ba di ngeen fi génn di julli ji faneen ma bëggoon fii ay bis su ngeen mënee waaj ak lu ngeen fi am ngeen génn dëkk bi bëgg ay abal ma ko te bu ma leen fi déggati mukk su ko defee daal dama boobaat naa xam ne yéen nit yi ful la ngeen tey li ngeen bëgg jaral na leen lool bu ngeen fi gàtte la yeen loo xam ne ñëw na bu ngeen ko deful nag la gisaat seen kaw na ngeen xam ne murit yi moom wax rek laa man waaye mënuma leen tey ñooñu ci guddi gi la ñenn ñi génn dëkk bi ñenn ña nga ca ginnaaw ak ngeen ngi neew fi ne fa lañ nekk xool saafara sos si ah bi am ci murit moo daanaka léegi li ñuy wax sëñ bi wala ñu ko dara ñu jàpp kooku dóor ko ba mu ba nit ñi di barkeelu ci dóor ga ñi fekkee sax ñu fekkewut néew ba sax dañuy sànni aw xeer fa néew ba nekkoon. ko nga xam ne am na xam ne xewoon ginnaaw léegi da ngay dégg ñaan dégg li ñuy wax sëñ bi kon murid yi ni ñu sedd léegi sëñ sedd gi ci murid yi dañuy wax sëñ bi lu rëy nga war a yuuxu daanu dem nangam daan kooka yaa ngi dégg ngi naan saa yi dégg nga li ñuy wax sëñ waa naa kooka dana waar ñaan na sëñ bi nag si noo ko ñoo ko def xoolal loolu sëriñ si nag ñoo ko dafa sedd léegi li ñoo sedd moo tax benn muritum Baay Faal nee na ma yoon yi du gaaw a jagaat mu ne ko ah ma daa am luñ bàyyi lu ci bokk mu ne ko ah ma Euh, euh, euh, futti ginnaaw ak tuuti ndey. ba mu fi jógee rek lañ bàyyi lañ lañ fi. waaw duma duma de moom. waaw ba fi loolu jógee rek lañ la ñu tàmbalee. wax nañ dëgg de loolu dañ cee war a dellu si waat nekkaat bu dër bu wér. dana ñëwaat nag sëñ bi dana ñëwaat dana ñëwaat. dana ñëwaat waaw. indiwaat sëñ Tuubaa originalité sëñ Tuubaa bi di ko dundaat te koy te nag waaye nag ngërëmul sëñ Tuubaa li gën a gaaw mooy jaar ko ci xasida yi gën a dañ ko dañ ko fi jaar am murit day jàng xasida di leen jàng ci xasida yi dañ ko def murid yi nañuy jàng xasida rawatina ñi nekk ci réew mi Serigne Touba xasida da leen boole di leen jàng ci xasida yi tey war waa kër Serigne Touba yi ndax kat kilifa nee na ma Serigne Touba nee na ko sama ñun ñi ànd ak man te gëm ma de maa ngi leen di xamee ci sama njaboot gi maa ngi leen di xamee ci sama njaboot gi waaw nañ nañ jëfandikoo li Saalum Fall waxoon rek. roy ak romb kese koo gis sëriñ bu ñu naan nii laa ak naa la sa yónni ci su ko sa su ko sa xol mayee nga yëkkati sa ëdd jox ko mu ñaanal la def ko leneen lu ma def lu ma doon sa yónni wu ci te nag na ci ñun teel bi ñoo xam ne maanaam a bi sëriñ si ñor nañu lool bàyyi suñu ayib bopp ndax dangay fekk sëriñ bu fanaan ni julli bu ba set doo ko waxtaane waaye boo fekkee sëriñ buy tox ki sa gara nga di fekk naa ko fay muy tox moo ne gis na ko muy fanaan ne julli te waxoo de waaye daal ci gàttal kanaa bu mën a am kanaa comme yéen a ma gën a xam li may wax kanaa bu am suñu diggante ak sëriñ si maanaam sëriñ si ñun taalibe yi am na ñu wàcc seen yoon waaw taalibe bi bu ma leen dañu war a mel dëgg-dëgg du gis ci sëriñ bi lu muy waxoon waaye sëriñ bi it bu mel leen ni war a mel dëgg dëgg dëgg taalibe bi du gis ci moom lu muy xebet kon bu defaru amee ñëpp war a defaru nag ñu nag defaraat toogaay yi jëkkalaat ko te nag bàyyi ñiy mbuboo seen bopp amusul jaaxle mi ñëw di leen gëm loo boppam dina woon ay trikaasam te bu leen koy wan nag di day yëkkati fataw suñ tubaa na leen da leen di woo ci sëñ bi ngeen waaxu di ñëw mu leen woon sëñ bi naan leen nii ngeen waaxu di ñëw ba si ci moom na teg lépp fii wan leen boppam am na sama classe gi yëpp dañ lay woo ba nga ñëw ñëw wan la seen bopp di la wan big luñ def ak big luñ gisee sëñ beeg lu leen sëñ bi wax ak yooyu yooyu concerné wu leen waaw ab télé bi daal li mu seq ko sëriñam mooy nuyu ko jox ko addiyee mu ñaanal yow booy joxe yow taalibe bi joxe woo suñ tubaa nga jox sëriñ bi buy ñaan ñaanu suñ bee ñaan suñ tubaay ñaan te suñ tubaa du jëmm juñ ko mën a liggéey yi nga gis jëmm ji ñëpp di xat-xatloo daa am jëmm yu mu yebal kon nañu gën a góorgóorluwaat ci defaraat tuwaay xam rek am na benn kare boo xam ne suñu ko jëfandikoo dana baax lool daa xew kare bi mooy lan mooy bëggante ci seen biir te jëmmi suñ tubaa tax lu am solo nga doon sëñ bari na yuy xew ci yëf yi pas-pas bi mooy des ci sa diggante ak Sëñ Tuubaa bari na kuréel yu bari yu tas yoo xam ne bëgg addunaa balal moo tax mu tas bu diw jiitee daayira bi duma ci bokk bu dee kuréel bi ñuy jàngi diw ko jiite bu fekkee mooy daaj ni muy daaj ji neexuma du ma ci bokk bu dee diw yor kees gi di ma teg ndax diw moom bu ëllëgee moom moo lay fay sa yoon ci diw te li ma leen wax yéen a ma gën a xam actualité la war ci ciy waxtaan bari na ñuy tas dëri ma suñ bàyyi nangam bu fekkee moo ko jiite man niwuma waaw suñ bàyyi nangam moo la tax liggéey yow wala suñ tubaab la tax di liggéey ñu ma ta bàyyi xel la te nag fab ngir jëmmi suñ tubaab ñu bëggante bëggante te yàlla rek tax dimbalante dimbalante bu wóor alal yi adduna dara dara dara dara sëñ bi bis boo sax loo bari li bari li boo rombee fii gis loo moom te doo ci man te li nga yor xaalis bi nga yor yow di sa poos ba tax nga yëg sa bopp di nangam nangam am na tubaab bu la ko ëppale ba noppi di ko naane sàngara te mënuloo ko dara ki gëmul yàlla ci nga koy wut ci moom te danga koy naxtaan ba am ko kon jëru jaay xam nga lu gën a jaay lu gën a lu lu jara lu jara manifesté woo fi ma waxee yow mooy murid saalix bëgg sëñ Tuubaa ba am jax tàkk ko boole dara koo gis dimbale ko te tax te bu mu nangu mu xam bu mu nangu mu xam la sëñ boo gis teral ko loolu li tax nga yàgg doo yàgg ci réew mi da ngay dem ak dikk da ngay am xaalis waaye rek bari na nit ku toog yàgg fi lool nangam naa na xoolaat boppam na xoolaat boppam ba xam digganteem ak Sëriñ Tuubaa amul lu mu mas a def Sëriñ Tuubaa ci ak njabootam wala mu am lu mu def Sëriñ Tuubaa ci ab taalibeem buñ mel ni ñu war a mel bëggante soppante te yaa kenn ku nekk sa bopp gënal la sa morom ñu ngi koy def sax ndax liñ ci liñ ci am ku ne xam ne ne kenn amu ko ci kenn ku nekk fii sa moromam moo la gënal sa bopp waaye nañ koy doxee di ko waxee buñ leen woowee téléphone ngeen di jël bu ngeen waxee ngeen di ngeen di ngeen di bu la sa mbokkum teel bi wooyee nga jël ko wax ak moom jox ko sa xalaat soo amee loo xam ne gis nga ne lii du noona nga ne ko sëñ bi ñu ngay jarde waaye nag teel bi it la lekk ñu naqaree di jënti ñun ci suñ biir ndax dangay gis teel bi bu nekk ci lu ko neex nga dikki di ko lay biire ne ko sëñ bu ma sañoon nga sàpp soppi doxin ndax naa nga mooy sëñ ma yaakaaruma la ba nga jox ndigal le léegi loolu loo ci man sëñ ah loo ci man mënoo ci dara boo ko dee lay biir sëñ mooy la man yaakaaruma la ah loo ci man dafa am bés man ak sëñ ñu toog ci kanamu jumaa ji foofu ñuy faral di toog rek suñu xarit mi na ko ñu toog ba yàgg am ko fa romb sol ay dàll sol ay foofu ci kanamu jumaa ji noonu mooy foofu ci war ma ji rek bi mu solee ay dàllam jaar fi ñaar ñaar ñu summi moom mu sol am ku nekk ci wetam daal ne ku toog ci wet daan ne sëñ bi ñu ngi jégalu de dàll yi summi ko mu ne teg faliwu ko mu daal koy fett sawaat sëñ bi daal yi te foofu sëñ Fallu nee woon na mandargam texee doomu aadama manes na koo xamee foofu ci sol bi daal sëñ Fallu la ko waxoon waaw ne texee teg doomu aadama dëgg-dëgg boo ko xamee boo ko bëggee xam rek seen seenañ ko sol foofu ay daal nee na nee na mën a jaar ci la bokk kooku di ko labiré naa ko sëñ bi daal yi di ko labiré mu mel ne ko ko déggul am ko nekk ci te ne ko sëñ bi dégg na la bàyyi ko lu waaye def boppam bi mu ne waxee loolu kooku daa koy tontu loo xam ne kenn mënuñu ci dara ndax bi mu ko nee lu waay def boppam ki solon daay daa ges na ko ba nga a noppi ba nga xamee ne lu nag nga war a ko bëgg dimbali fooy jaar te bu njëkk bu njëkk teel bi seeraayam Fall daan Sam fekk ko bu foog boo ko fekkee ci loo xam ne bu ko fa seeraayam Fall fekkoon duma ko mbaa mu xas ko si da ko suñ Massamba Diop Sam da koy dóor mbaa mu xas ko te boobaa teel bi day nangu loolu tëral si na Abdourahmane Lo mën naa jàdd jàdd jàdd yoon sëñ sëñ sëñ sëñ Mbaye Sarr fekk ko fa jubbanti ko mu nangu waaye léegi li xew mooy sëñ bi man yaakaaruma la soo amee conseil yooyu joxe nga jox ko sa bopp waaye sëñ bi kooku koon kenn ku nekk sa bopp la te kenn ku nekk yow ab sëriñ yow yaay sa sëriñu bopp yaa yor sa kiimaali bopp yor sa génti bopp yor sa bagage yi bopp la mën a sottee bu hmm? mën a léegi li xewoon li mu yor def mooy kenn ku nekk nga jàpp ne sa moroom la gën gis nga suñu tubaab dafa am lu mu wax ci xutbul xutbu maa ngi ko doon firi ci bu euh, ma doon julee xit euh, ñi koy firi dañ koy firi te dañ ko dul firee ni ko war a firee dëgg-dëgg mooy moderne na ko bañ xam li sëñ bi jubloo wax mooy wala tatlubal karama bi xëy taqwa mooy ko xutba korité ak tabaski boobu fay nal karama huwa taqwa lu rëy sañu noonu waaye xamuñu ko na ñaan bul sàkku tedd nga ci lu ragal yàlla déedéet wala tatlubal karama mooy bul sàkku personnalité bi xëy na taqawaa ci li dul ragal yàlla ndax na nga xam ne kat fay karama na nga xam ne personnalité dëgg dëgg dëgg dëgg mu wa taqawaa mooy ragal yàlla mu indiwaat walilaahi izzatu wa li rasuulihi wa lil mu'miniina te te personnalité bi nga bala ngaa xam ne mooy ragal yàlla dëgg mooy personnalité nga làqatu def lu ñuy tere bañ fekk la fa gàcce ga ngay am da nga xam ne personnalité dëgg mooy ragal yàlla suñ pas-pas bépp nag suñ julli woor yeeg nafila yëpp ñu jël ko jox ko ëddi yi suñ jubaa si yëpp laxat dafa toog ci beneen julli timis ba noppi am ñu nekk ci ginnaawam bi mu ne asalaamaaleykum daan addiye suñ tuwaa wax ko ca kaw mag ñi nekk ci ginnaawam daan waaw mbàkki mu ne mbaa da ngeen ko def mbaa daa bees ci yéen daal jóg def noonu muy def rek fetto su kii faas loxo yi noonu daal jóg daan ne man Abdou Lahad ba ma xamee ne Abdou Lahad laa tudd ba léegi xamee sama nday jooju bi ak sama càmmoñ bi fàttaliku wu ma fu ma ne asalaamaaleykum ci julli te néewu ma addiye suñ tuwaa daal jóg taxaw daan ne ñun dañuy sëgg a sigi rek ba julli jotee moom képp a julli woon daanaka te suñ julli yi dara baaxu ci te buñ ko ko joxee doyewu ko dara da koy defar ba mu mu del la wàññi ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah daane dañ maa jàpp ne dañ maa rek waaye xamuñu wër ne masir yi maa lax yar maa lax maa ngi dox ànd ak gars yu baax yi lillahi si naa ji jiite leen lillahi ci ndigalu yàlla bi nabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woomaa lii li xayri laahi su ma ne woon yàlla su ma ne woon sidna jibril na tubaab yépp dee bu ma gisati benn tubaab keroog la ñuy raaf kenn du leen gisati ñu ne ko lu ko mu ne kon xaw duma siiw du ma dox dox bi te damaa war a dox dox bi xaw fil ba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 bu la nee nangam nga ne déedéet rek sa ne ko mbàkke nañ koo xam ne mu ne ko a tax na najasun moo tax loolu ma seen kayit woowee mu jël waneen kayit bindi ca daal di am lu mu bind ba mu bindee ba àggalit ñi ne jaawatu ñi ne mu jug jaali bët la fa bind ñi ne limaay basirin la fa bind xaw ma lan bayit sàngam ne waaye man la ma teg sama bët loolu tamit lu suñu tubaab laa teg bëtit ah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 bu Sëñ Tuubaa bindoon li gaa yi bind ñu bàyyi ko ñu bàyyee gaa yi ah naa tablu woone ba gaa yi bindoon li sëñ bi bind ñu téye leen ñu téye sëñ bi kon bokk ñu luñ bind ah, am na ci ku koo xam ne lan bind boo ko gisoon yow mii murit bi gën a xeebu ci murit yi bu mu la ko waroon boo ko gisee say rongoñ tuuru ndax waxtuwaat bi ne ko naxnu fii taxti silli liwaayik la wax noonu la ci soroon keru drapeau ji la ñuy kerloo ñun su tàllee sa drapeau ci ker gi fii la ñuy la wax rek noonu la loolu la wax tubaab bi moom moo ko bind suñ tubaab mu bind raditu billahi rabban la bind wa bil islaami diinan wa bil bi sayidina muhammadin rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan wa imaman daal di wëlbati kayit bi ci fegg bi ci daal di dimbali fii xul wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wut bi ci kaw bekk ci des bind ci wallaahu alaa maa naquulu wakiilun loolu la bind loolu su bindee neen loo xam ne daa jógee ci suñ borom bu dee luñ ko suñ signature suñ borom lay def wallaahu alaa maa naquulu wakiilun bu dee digganteem ak tubaab bi ak xaasar rek lay bind tomb ci bi tubaab bi moo xam ne li muy firi xaasar day def ab yi rek daa tomb ci bi tubaab bi moom xamul gars yi xamuñu lu mu doon tubaab bi moom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 mu mu ko bu fekkee dañ maa dañ maa rey lu may am ñu génne ko kiraay ne ko bu ñu bu mu bu fekkee dañ maa génne lu may xool nee xoolee laa gis ne buñ ma génnee la ma cay amee du ma ko amee ci buñ ma reyee ak buñ ma tëjee nañ ko génne daal di gàñe ñu doon ko rey ak ñu nañ ko tëj dañ ko tëjee ay mbokkam a koy génne rek te du ngeen am li ngeen bëgg su ngeen ko reyee it amu benn yil la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 ngis ne ngir ne musuñu musuñoo gis lenn mu ragal te tey gis nañ buñ ko xooxee gaynde gi rek mu dawaat kon léegi gaynde gi kon moom lañ koy boole su naree wax dara rek ñu boole ko gaynde nekk te booba nee na seen satu saa borom moo ma feeñu ne ma foofu yi ñu jàpp ne fi ngay tuskaree sa sang ba sallallahu taala alayhi wa sallam koo gisee ca jeewal foofu ñu jàpp fi ngay tuskaree nag xaar ko mu ñëw ànd ak yow dugg fii sardem dase sardem dase nga nembi kon teg moom doog a dem xaar ko foofu nee nag sama teel bi mayu ma ci yonent bi ma koy njëkk a dugg te ñëwagut moo tax ma koy xaar buñ ma bu ma xëyee may baax may bañ ñu yaakaar damaa ragal gay léegi ba yonent bi sala sala accès la ne ma di juutu ma topp ci ginnaaw nee ma accès ma di ko xool ba yàgg mu àgg suuf moom yonent bi nee na ma foofu sama bëti wuum ak wóob bëti wuum yonent sala sala ni ko rikk di ko jori ay xasida yoo xam ne du ngeen ko gis fii du ngeen leer gi nekkoon ci yonent bi ak sama jeexit ragal yàlla moo mujj tëb bu ci gaynde gi ba mu soppi kum xar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 waaw julli gi boo demee bi ginnaaw jotaay bi du doon benn jotaay xëy na du ñàkk xëy na ëllëg ñoomaat yeneen jotaay ndax euh, du jombul xëy na suba sax ma dem Italie ci màggalu Sëñ Abdou Lahad gi ndax dañ ma fay soxla hmm. waaye buñ màggalee ba noppi rek damay daal dikkaat suñ dikkaatee nag hmm. ba téeméeri naa am luñ ci bëgg rek mën naa am te su boobaa yaakaar naa yooyu mooy gën a kiimaane waat yi su ko defee euh, xasida yi day jëmmi sëñ bi xasida day jëmmi si Tuubaa joo xam ne euh, waaye nag nañu moytuwaale phénomène bi ñu koy doxalee ci phénomène bi ci am nii mooy euh, dafa am loo xam ne dañ ko war di jiital ci xasida muy pas-pas ci les si mën bari na koy dugg ci mboq jàng téeméer jaari bitu noppi yées ñëpp bari na koy jàng ay lim yu baari ndax dangay gis kii naa man ab bisrien la kii ab jaari bu tuyee la kii naan ab nuur daari kii naan ab nangam na su ko defee loolu dañu mat a waxtaane ci bas-bas bi ko war a lan yaakaar naa loolu moom moo gën a xam su ko loolu day laaj am na ay ay yum laaj ndax damaa gis ne bas-bas bi ñu war a jox xasida des na nitu xasida dëgg-dëgg ni mu war a joxee xasida ak ku dul nitu xasida koo ko xoolee war nga koo xam xàmmee ko bu baax kiy dund xasida ak kiy dundul xasida nit ki mën naa nekk murit te du am daraja yi dund xasida waaw xasida martaba la ci biir martaba yi murit ndax mooy kerkeraani sëriñ bi mooy kerkeraani sëriñ bi xasida bu mandee ci yow ba dugg ci sa biir ku la xool gis xasida ku xool xasida gis la te mbindeenu sëñ Tuubaa ci xasida dafa diis ndax xoolal lu mel ne tey siiru xasir ci misaal rek nee bi mu koy bind bayit bu mu bind yàlla wàcc màggal bayit bi demal ba ba xasida gi jeex buñu leen ne yàlla wàcc nag ñu ne ah si yëm sut li mu wax nu mën a nekkee yàlla nee na léeg mu wàcc ba ci jaww di laaj ana kuy ñaan ma may ko du ko def yàlla yàlla koy def mu wàcc ba ci ba ba ci asamaan suuf si nekk ci biir naa ana koy ñaan ma may ko musal ko kuy bëgg ma may ko ah ku a si ci man ma jàpp ci loxoom bu ko kenn wuyuwul mu delluwaat fa mu nekk kon bu ñu la nee sëñ sëñ <laughs> yàlla daa wàcc màggal xasida sëñ Tuubaa demaat war nga ko gëm waaye nag xasida sëñ Tuubaa ak xasida keneen am na différence waaw mën naa la ciy joxe ci misaal ci lu mel ne tasawuru sixaar tasawuru sixaar xasida la tasawuru sixaar waaye buñ buñ ko tuddee tasawuru sixaar ba mag ñi ba ko yaakaar na yëfi gone la ku bi giñ ko ubbi mooy tasawudu saxaar waaye boo ko ubbee fekk yu fi mag ndax boo dee ba ci biir ma nga naan wa kaw ne asar nasmi qaidan ila sabilihi l aqwami kulla man tala waaw wa ana xasa sirati mustaqiman fattabihuhu wala tattabiu subula kon kay wa kaw ne asar nasmi qaidan ila sabilihi l aqwami kulla man tala mu ne ko kan ak kan mu ne ko wa kawnuhu sahadata sibyaani wa siibi wa subbaani wa niswaani kon mag boo ko fi bàyyi naan gone yee ko moom da nga koy yur waaye bu ko yuree fekk fa sa sa yëf waaw foo ko fekk fekk sa yëf te xasida gu yéeme la ndax xasida ko mën a jàngatee ci mën nga ci sax ci liggéey Sëñ ci kawe gum kawe ñëpp ndax booy xool ci mag ñi ku masaan a jàng xale yi boo ko jàngee muy lewal ak saan boo ko jàngee ñuy daal lay kaala solal la sa mbaxanam ci li cara muy wane ne yow yaay kaangum dëkk bi xalil moomee nga xam ne mooy terminalu xam-xam xale yi téereb suñ tubaab bi ne mooy bu gën a ndaw sa julli bu la faatiha képp am na bunt bu sëñ bi indi ci biir tasawur sixaar boo xam ne mooy bu téere bi mu njëkk def noonu nga xam ne mooy mooy téeréem bu ndaw am na sa sa julli bu yàqoo ni koy defaree ci lu gaaw nu facile ni la ko sëñ bi leerale ci tasawur sixaar boo fi bàyyee tasawur sixaar ngir bëgg mu nga di xaar beneen téere fokk nga am maîtrise su boo jànge ba àgg xalil mu doog la ko leeral loolu li muy firi mooy bidaayatul maahi nihaayatul xiyaar fa gaa yi baax a yem ba ma tegee sama benn tànk laa leen fa fekk ndax te soo de sa xaar ne sa julli te nag ni la ko de sa xaar leerale bokkut ak ni la ko xalil di leerale xalil dala koy wax ne la niire ba nga ne waaw mu ne la tëra dut am na sikk wala mu ne taawilaani wala mu ne ah di taxawal xawlaani am nañu wax lii am nañu wax li nga gërëm sëñ bi nag dala wax bu noppi ne la bila sakki ci lu dul sikki sàkk wala mu ne bilam tiraay ci lu dul barante te xalil danga koy jàng am sa xam baa nga baax tasawur si xeer bi dala ko bëgg loo ndax dana la jàngal am sa xam-xam ba noppi am tax a gaw dina ak mu wax ca tërjumaan ji mujj ja ana man hafisahu laa yasalu fii xabrihi munkar wa nakir waxayru waxayru waxayru waxayru waxayru waxayru mooy lan képp koo xam ne jàng nga tasi xasida gi mooy tasawur si xaar am ci sa diine ba noppi jëfee ko te mokkal xasida gi mooy nga wattu ko daal ba xam li ci ne nee na kenn du la laaj ci bàmmeel bu dee kenn danaa ah xam-xam ak yi jàngal boo jàng boo jàngul nga wax waaye man daal amul loo leen ci wax noonu la xasida Sëriñ Tuubaa wuutee xasida keneen ku ne xam na ne daana def xasal li ñuy wax xasal mooy ku mel ne xëy borom xam-xam yu mag yi buñ masaana tarif xasida xasal mooy war a tàgg sëriñ bi jaar ko ci dëkk bi mu nekk jaare ko ci ay way juram dëkk ba mu cosaanoo di wax ay gentam fa gent ba mu nekkoon di wax euh, nag yeen naan sàmm bëy ya di wax noonu baag si bi mu nekkee Dakar ñu fii di ñu naan ki ngay waxal comme doon mu ki may waxal bu ngeen ko xamul mooy ki ki ki toogoon Dakar nekk fa ba yàgg mu nekkoon Touba jàng fa xam-xam jógee fa ñu naa ko fu mu nekk léegi ñu ne France la nekk waaye nag nekkul France gépp daa fu roq bu mu nekk di noonu lañ ko defee ku mel ne Ibnu Turaydi nga jël mu ne yonent bi lay tàgg waaye mu def mbay wax danga naan kii day léeg yaa sabiet asbaha say in bi mahar tarxal xusaama bayna asjaari naqar naan ima tara resi aakii lawruhu turata suppin tenta asyaali duja dem ba ca biir mu naan waa da rawdu lax wi yestoon saaween min baadi maa xat kaana ma jaaja sara loolu mooy xamu lu lu wax loolu fakku lu maa laaqitu muxtafarun fii jan bi maa asalo satu nawa inal jadiday ni guddeeg bëccëg la bëgg wax ima isamas tawla ya ala jadidin nangam nangam nga dem ca déel yi mu ne la lan xarit jàddal foo jàdd jëm mu ne la bi mun aarijil idaabil wurradi bayna lisaa bi wa bayna saati armadi yaa ngi dégg nga dem ci lu mel ni xamsiya kooku sax moo tane ndax daal di tudd yonent ci sax ndax nee na kay fa tarxa ruqiyikal anbiyaw yaa sama amata wala sa samaru lam yusaawako fii xolaaka wa xaala xaala sana mi ko doon wa sanaaw xoolal nga dem ci nga dem ci burdu lu mu lay wax lu mu lay wax amin tasakuri jiraanin bi si salamin nga ne ah mu ne la masacca dam an jara min muxlatin bi dami nga ne waa kii lu muy lu wax lu mu doon mu ne la ayasibu sabbu ana alxubba munkatimun maa bayna munsajimin min huwa muttarim nga ne ah, kii li mu wax xamul lu mu doon lu kii li mu ne ah lawlaa hawaa lam turiq dam an xalaa tarali wala ariqta li sikri baani wal alami doo xam li mu bëgg wax lu mu loolu sëñ bi daana ko def njëkk muy dem ci géej gi waaye bi mu jógee ci géej gi koo bàyyi génn xasida lañ xam goo xam ne avant muy kii doon na ko defoon na ko muy lu mel ne Hamad Souleymane bi serfi an masiyati kay maa taxoo de simaam yi li rasiyaat bi muy euh, leeral Souleymane ak euh, soxna sa yooyu yi ci xew waaye ku ne xam ne ne xasal ba guddut ndax balim ta dantu ka yaa mawlaaye mu taqiyan la wax min karida baadama tanoo xatiyaati kon kon xasal ba guddut am na mag mu ko mas a laaj ne ko lan moo tax bi nga nekkee ci géej gi ah, bi nga jógee bi mu njëkk bu njëkk nga daan def xasal léegi defatoo ko dangaa xeeb ñu ko daan defam da nga ko wóolutu mu ne ko xeeb ma leen ma ko wóolu waaye damaa àgg ci sama borom xam ne nee na ma lu ma waxati ma def ko ginnaaw nee na lu ma wax lu ma ko waxati mu def ko nag bu ma yëkkatee sama xarima dama fa nekk naan jàddal fii wala fas wi nii la meloon wala mbaam mi nii la meloon wala xar mi nii la meloon dama naan wa sallallahu taala ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman dama naan yaa sawiyata ma ma ne wasalallaahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ñu yaakaar dama naan xarit ma ne alhamdulillahi allazi yusalli ala nabii muntaxa musalli wala ma jékki-jékki ne ahadu salli wala sallim noonu laa koy doxalee rek nee na nag bi nga xamee loolu am na nag euh, xasal bi amatut ndax nee na ko ginnaaw loo ma def ko nag du ma xasalati moo tax xasida gi nag tëmbale yu ko sëñ bi def sëñ Abdou Lahad nee na xasida yi sëñ bi ne nanguwut xasida yooyu moo gën ci nañ yi moo gën a gaaw ci fas seen yaajo ndax la suñ Tuubaa ne nanguwut lam la nangu kon ginnaaw li nanguwut koo jox ak ja jam war lool rawatina kon la nangu ndax mën nañ ko jox àqam foofu la suñu Abdoulaye gisee ci pas-pasam moom si ne li suñ loolu moo gën a nangu ci ñoom ñoom kon xasida buñ koy jël rek am nuñ koy te fii may waxee yow xasida dafa xew ndax liggéeyu sëñ bi daa yaatu te sëñ bi mooy xasida yi sëñ seen xasida yi mooy sëñ bi te sëñ ab laat nee woon sëñ sëñ xëy nee woon na ma lépp loo xam ne bu sëñ Tuubaa amutoon loola du am loola ci produit wu sëñ bi la bokk loolu li ñu ci mooy waa bàyyi xel waa këram lépp loo xam ne bu sëñ Tuubaa amutoon loola du am nee na loola ci produit wu sëñ bi la bokk war nga ko def ni nga def sëñ bi kon jàng xasida mun ta yem ak mukk ku dul jàng xasida am murit dafa war a jàng xasida waaye nag ak murit mooy lan ndax mooy boobu bàyyi bu rëy boo sol teg ci motu di xabar xabar yow sa jukki bu rëy yéey sa gure di naan café di fon na ñangaan a jërëjëf suñu tubaab ndax loolu mooy ak murit déedéet murit bu ci ak nite génnee rek nekkatu murit murit dëgg day nite xam li mu war a def ak li mu wut def li ëpp def ak li mat a def ak li jar a def nga di ko bàyyi xel teg ko ci nite waaye nag xaali xasiida nag mun ta bokk ak xaali murit kese ndax murit képp daa am ay xaalam xasiida wëlbati ko wël dugaat ci biiram te bari na xasiida yoo xam ne ba ko sëñ bi jamono ji taxoon moom ndax day day tabax ni day rocci di day envoyé di supprimer lu mel ne nuru daara yi lu mel ne xasiida wakaana xaqan lu mel ne xasiida taysiru asir lu mel ne xasiida Euh, euh, mat lu kii ñu koy waxee sax tuxfatul mutadarahin hmm. xasida yooyu ak xasida gi ñu wax mu faytul bés ak suñu waa ji jaay wut maraaxi googu moom day avocat xasida yëpp moom xasida yëpp mooy seen mooy seen avocat saa suñu amee problème mooy taxaw rek la jël wut waaw waaw jël jël moom lu li ngay wax ni lu wér la waaw ndax soo xoolee xasida googu bi xasi gu nekk xaal bi ku sëñ bi doon taalife am na xasida yoo xam ne poids doomi sëñ Tuubaa lañ yor ay doom ay cëf ka la yor sëñ xëy ñëw na si imsatu naan ko doomi sëñ Tuubaa yi mu ne ko bu ay doom ay cëf ka a yor fam jëm ci yàlla sori te mënut a ñàkk dem ba mu demee ba liñ ko sëf gis gann ba mënatut dox mu daal di sëppi ko a bi mu demee baag ci diggante mu ko mën a ko mën a tuta dox mu daal di sekk Cheikh Mamadou Fadal sant sonni ko la mu yoroon ba woyof mën a dem daal ne ko ku la mujj ci moom la gën daal ne ko ndax xam nga kenn ñuy wax Mouhamadou Mourtala mu ne ko waaw xam naa ko ba mu ne ko du ci moroomam ko wax ne ko ki ñuy mu ne waaw ne ko du ci moroomam kenn ndax moo mujj ci sëñ bi yi moo gisatun te ak xarat wa xëyru xëyratin la day ko du xirat moo tax sëriñ fa Cheikh du Fadel daana toog bu séenee siñu fal siñ mus siñ murlaa di ñëw day jóg gàttandu ko bu jëm si wut ci moom mu taxaw ba mu jàll mu toogal am bés suñ fallu toog am ci mag ñi mooy mag ñi toog ci kanamu sëriñ si rek toog suñ mu ñun ñoti ci kaw ci kaw ci daal ju taxaw si suñ murlaa mel ne ku jàll dem mu toogaat am ku ne ko ku xalaat ci xelam man waxu ko waaye ci baatinu suñ fallu doo ko xam ko xalaat ci xelam ne ak kii di sa rakk rek ngay def boo ko gisee di di ko gàttan ko jóg nga def suñ fal dat jël dokk bi booba waax waax ba agsi ci moom rukk koo ko ñetti yoon ba mu xool ko mu ne ko néeg bu nekk la fa mujj moo a a gis muy noonu muy def ne dara la lim sëfa diis loolu rek la lim sëfoon moo diis ci moom eh, ak yi yi kii suñu nee na ma mas naa toog ci biir mbooloo nii mbooloo mi toog mu ne man nekk ca cat la mu yor asmaa ul moom suñu mur la ubbi ko nii di ko jàng nee na mbooloo maa ñii ngi lekk ñii na tekk di seen bët nee na mu toog nii xool ko nii nee ma mi di ñëw nee na mu am fu mu teg baaraam bi nee na na mu nee mu ne ko nii waxut ak moom waaye da ko ne nii ndax gis nga lii ba mu xool ko mu ne ko waaw mu ne nii daan na ko delluwaatal fa mu tawoon <laughs> kon loolu moo tax noonu la xasida yi toppantee nag xasida yi sëñ bi dalif ci biir géej gi jamono yi sëñ bi nekkee ci géej gi soo gisee mu ne li xutta asmaana laaj laaj googu am na lu ñu koy firee te doonul loolu ak euh, min hustarallahu kë kë googu ak laaj googu la ci sëñ bi tënk ca biir bokkut ak niñ koy firee xam nga doomu aadama bi bi ñëw fii ci France may nañ ko ay xibaadaat yoo xam ne yolamalal nañ ko ko ci lislaam lu mel ne mu dem takk ab tubaab boo xam ne du ab du ab julit loolu may nañ ko ko sëñ bi ko ko borom joxee da ko ne man bëgguma xaraamal na loolu ci boppam moom ay wàññi julleeg ay yecce xaw ak yooyu yëpp moom da ci boppam loolu moo tax ma naan lii xutta añ maana lii xutta asmaana ak mi minu sarallaahu ka minu sarallaahu la wax ko jaayante léegi nag bi mu demee ba Gabon léeg-léeg mu àgg foo xam ne day feex del ba du mën a doxati leer gi féete ko fu ne ba du am nu mu fu mu mën a sotti leer gi nag lu set lu mu ko man a sotti ko lu mel ne soxna Mariama Jaxate wala soxna Fat Jaxate wala keneen keneen da ko du gis foofa mu ñaan borom na mu yenkee wal ko ko ci loxo bi mu wàcc ci si ci baaraam bi dugg si ci biir xëlëma gi mu def ko xasida teg xasida googee nag boo ko peesee foofu suñ seeni wu teg ñooy balancé am na ci xasida yooyu boo ko jëlee teg ci balance foofu suñ felu teg ñu balancé ndax fa mu tolloon ba di feeñ fi la toll te amul fu mu fekk fu mu ko feeñale mu feeñal ko ci xasida gi moo tax xasida distance ak yaatu waayam ak température bi muy daw kenn mënu koo attan kenn mënu ko xeyaasal te bu ngeen di jàng sama xasida na ngeen koy bàyyi xel na ngeen solo laab jublu penku set set setantal bàyyi xel ne saa su ngeen koy jàng ba ma koy bind na ma doon def na suñ borom doon def ak ay ak ay malaayikaam soo ko dee jàng te teewal ko noonu la yàlla di defaat àll ba day dikkaat ci moom ndax day day mel ne tey la ku ne xam ne jaay bitu maraax bi mu koy bind nee na day bind nee na moom nee si suñ tubaa ci la déggee mas a déggee baat boo xam ne ci moom la ko ci ci ci ci la ko mas a déggee te déggaatu ko ndax nee na sëñ bi day bind jaay bitu di bind di taxaw ba yàgg mu toog di bind ba yàgg mu jógaat taxaw di bind ca la mas sa déggee mu ne ñun duñ nit ñun duñ nit wax na si yem sutu na ko am sutu mu ko mbàkk mu ne ko sama sang ba de xanaa war na maa sañ ci kenn sañut war a mën a am ci moom xam nga ma wax ko mu ko mbàkk ko ko xam jël mu ne ko dama ko jaar fu ko kenn jël ndax jaayanteeg suñ tubaab gi bokkoon na ci soo agsee ci turu yonente bi da koy wutal mandarga soo agsee ci turu suñ borom da koy wutal mandarga looloo waroon daal di xonq ci loolu moo waroon daal di xonq ci bi mu nekkee ci géej gi nag daal di ji daa jeex te naa ne nag xasida gu ne daa am temps bu ñu ko wax mu bind ko nee na ba xëy jeexee mooy si turu yonante bi war ko xongal te taaj ji jeex na nee na mu war war amul daa te temps baa ngi dem nee mu xool-xool amul fenn fu daa waaye nee na ca ga ak jaayante ga nee na daa sutal xalima gi ba gën a ñaaw nee na mu wot loxo bi di ko ci sapp nee na mu wax wot loxo bi ko ci sapp sëpp nee na sapp na ko juróom-ñaari yoon dara ji doogu génn mu bind ca turu yonante ko jàll yaakaar naa koba kenn mosu koo fekk foofee ca yonent sallallahu alayhi wasallam mooy tax mu am ci lu kenn xamul kenn amul xasida day defar nit da koy tarbiye tarxiye ko tasfiye ko dindi ak nitoo dugg ci moom bari na ko ñaan xasida ko dofloo moo indi ndofam dugal ci biir xasida waaye dafa ci dofloo ko ñaan jëlibutu da koo sayloo déedéet moo yore rabam indaale ko waaye jëlibutu sayloo wu ko déedéet nañu bàyyi xasida yi ñu tumal day defee lii day defee laa déedéet ñoom lu baax rek la ñuy def déedéet lu baax xoolal jëlibutu maraax waxam ne kulli man yaqra'uhu képp ku koy jàng na nga ko may saxaadatan wa barakatan wa xaafiyatan fi daareeni kooku amul lu dul baax te Sëñ Tuubaa nee sama yaakaar jëpp mi ngi ci jaare bi du ma raxe murtadiyan la wax kaw nii qadiman asna wax na foo sa biir maqaran asna li may sàkku lépp mi ngi ci xad rumtu min rabbil bara ya xidma li mel bi jaay yi kafaani sadma boo ko dee jàng di ko jàng di ko jàng day mujj day def ci yow kas li ñuy wax kas da ko dindi da amati lenn loo xam ne dana dox sa diggante da ngay xam loo xam ne kenn waxul ko di gis lu kenn gisut kas fan yuril xuyóoba doon xaj bi la wax jàng bu jàll bi ba wax mukk di bokkaale mu tane yaa kaa fi yéen israaki wa tabdili la wax kenn mënut a indi ay karaama ci sa kanam ba mu yëngal la bu doon dem ci yàlla ka ñëwit mun la yëngal ndax li ko sëñ bi moo la ndax bi nga xam ne talif na ko te liñ doon liggéey liñ doon waxtaan ci Sëñ lépp Sëñ Tuubaa nee liggéey bi li muy rëy rëy rëy rëy extra bi mu de pour liggéey bi ba xam baax na baaxut jalbatu maraxib la di ko bind ba nopp sànni ko ci géej gi ne bu ci wenn araf faray rek ma xam ne liggéey bi baaxut keroog bi mu tegee tànkam fii bi mu wàccee ci la jalbatu bi génn ñu indi ko ko mu xool wenn araf manqué wu ci boobu waxam bi kulli man yaqra'uhu saaratan wa barakatan nekku ci woon mag ñi di ko daw ñu naan day dofloo di ko tere mag ñi di ko tere gone yi naan da leen di def loo lii da laa day tax nga nangam day tax nga lii day tax nga laa day tax a ñàkk jalwut marax day di xaalis wal takki naa bihaa kasa xarxaati waaw soo ko yoree da ngay joxe waaye kenn du jox soo ko mënee dafay da ngay joxe waaye kenn du la jox sëñ bi bi nga xam ne loolu am na sëñ bi daan ne seytaane la de moo leen koy ragal loo damaa sumbi ko sama bopp ci jalwut sumbi ko kii mu sumbi ko sama bopp ci moom nag moo tax ku ko laal di man may yow laal gi ko koy laal may man may yow te seytaane sama wextaan xëjut ci moom moo tax da koy ragal mu bañ kenn laal ko soo ko laalee du man ci yow dara moo tax mu bañ nga laal ko moo tax mu dugal ci seen xëy naan day dof loolu def nangam daana waaye nañ ma indi xalima ma ma ma ñemeloo leen ko bi ñu ko indi mu daan ne waxab li kulli man yaqra'uhu saharatan wa barakatan wa hafiyatan fi dari daana xanaa da ngeen ko ñeme ñu doog continuer tàmbali ko ñeme te boo xoolee yaa amiran xayra bi asbala xoolal loolu sëñ bi kamaa xasamtuhu biyaa wal xasbala xool ni mu indee laa xawla wala quwwata illa billaahi azim ak bismillah yi te fa mu njëkk a tàmbali xasida gi ko sëñ Tuubaa mu ne maa ngi waaj wax yaquulu la wax maa ngi waaj wax dana wax maa ngi waaj wax ñu ne ko kiy wax ko mu ne Abdullahi ñu ne ko xamuñu la de mu ne bu ngeen ma xamut ko Ahmadu Ahmadu la tudd ñu ne ko xamuñu la ba tey yaay kan mu ne man xaj yi ma man sumaatuhu man maay liggéeyal ki nga xam ne aw turam Muhammad la tudd ñu ne ko ah, waa ko ñu doog a xam léegi nag lu mu doon mooy daan ah, lu mooy waaj wax waaye ci yàlla laa koy tàmbalee ñu ne ko noo koy tàmbalee ci yàlla mu ne bismil ilahi wa huwa rahmaan bi mu ne bismil ilahi ñu ne ko koy kooku mu ne wa huwa rahmaan ni mu ko ko koy mu ne wa huwa ko koy kooku mu ne xaadalil li ma bëgg indi ma ko kookoy kookoy rahim mu daal ne alhamdulilah alal kitaab yi alal kitaab bi nga may tàmbalee sant ci téere maa sa fi mosa bi yi xool bi mu waxee ne mun la wax mun tamisan min maliki an yan faa kon kay sëñ bi jëlee bi mënut a def lu jëriñe nga xool mu fàttali bisir mu fàttali bisir moom moom bindin wi rek boo ko xoolee xam ne mbirum yàlla la te nee na bi mu ci njëkk bind bi mu ko bindee ba àggal yonente bi ko bi mu koy bindee yonent bi daa toog muy bind neen ba mu àggal mu këf ko yóbbu suñu borom ne ko bindaat nee na Nuuru Daarayni moom saa borom ci moom moo sàkk mu bind ko moog yonent bi boo ko bindee ñu defal nangam nangam nangam moo tax ba mu signé ñoom contrat ba war a dem mu naan lan tan sani raddi wala moo tax kare ba mu sëppee xalima ga di bind Nuuru Daarayni ba mu sëppee xalima ga ca njaarim na ko ci ci ci ci ci gi xalima ga daa sar bu bënd kayit gi nee na mu wax suñu ne ko daa ji may bindee moo boo xam ne li ci xel mee ko gën a foor fooraay boo xam ne li muy ñu ngi koy wal ci xalima ko gën a foor ba ëttanu ko kon soo bëggee mu bind ko ni nga ma joxee daaj moo tax suñu borom nee na moo nee na suñu borom moo ma jox këyit gi ma bind noonu dari ni moo ma jox daaji moo ma jox xalima gi xalal la si aataytuhu midaadi xalal la si aataytuhu xirtaasi xalal la si aataytuhu aqlaami kon xasida du xasida nii day def di dindi xasida da def jijji ji da xasida bu la noppee bu la bu la noppee bu la noppee defar bala jàlibatu ma day tarbiya tarqiya tasfiya te bu njëkk mag ñi mag mag ñaa mag a mag a mag waxuma mag Sëriñ Tuubaa mag ñi mag mag dañ daan def buñ déggee sëriñ bu nekk ci penk bi boo xam ne tey tarbiya ñu dox téeméeri at ak téeméeri téeméeri kilomètre ak juróom fukk fekk ko fa mu tarbiya ren waaye sëriñ booba benn kare képp la muy tarbiya ñu doog di ko nag léegi buñu tërbiya ba noppi ñu soxla tarxiya ñu ne am na sëriñ bu nekk ci gànnaar bi boo xam ne day tarxiya téeméeri kilomètre danga danga ko dox ak juróom fukk moo doog ñu dem foofa bu doxee foofa tërbiya woon nañ fii ñu dem foofa te sow mu tarxiya leen ñu doog bu nekk fii ci Saalum boo xam ne day tasfiya ñu dem mu tasfiya leen bi mu leen tasfiya ñu doog a dikk nag taxaw nag di xool sëriñ bu jàpp ci seen loxo yóbbu leen ca yàlla ñu doog a doxal ci penk bi téeméeri kilomètre juróom fukk doog a fekk foofu ko di jàpp ci loxo joxe suñ tolaa fab tarbiya tarxiya tasfiya jàpp ci sa loxo yóbbu ci yàlla doxañ ko ci biir jël bi tumbaraaxe moo tax mas na koo bind bi mu ko bindee ba noppi ñi ñi nga xam ne li tax mu bindoon ko weesuwul dana baag ci xaal boo xam ne mënatut a jaxasoo ak mbindeef mënatut a jaxasoo ak mbindeef mu daal di wax ne taalib xasida gi teg ko am na ko ma sa ñëw ci moom ne ko damaa bëgg ku ma tarbiya tarqiya ma tasfiya ma sëñ bi ne ko loolu ak taxoo la laaj te yéen mënatuma mënatu leen maa jege ndax su ngeen ma jegee xetuk medd ngeen may xeeñ ndax xetuk sama borom gi may xeeñ a tax daan yëkkati xasida gi jox waaye boole naa la kii dee ko jàng boo xëyee ak bu ngoonee kooku bi mu jébbalu ci sëñ bi loxo bi daa dam bu munta tàlli dafa làggi waaye bi muy jàng xasida gi daa xëy gis loxo bi di def nii di tàlli ak a banku ci barkeb Jaalibatul Maraaxib te noonu ko Jaalibatul Maraaxib ma ma ne boo indi woon gën xasida noonu la koy mane xasida yëpp a fes dal ak doole waaye xasida gu ne ak ku ne kala jàggi ruur man ci sama gëm-gëmu bopp man am sotu man am sotu nga xam ne nga dama du ma noonu am de amul loolu amul xam nga waaye dama ne maa koy wax ngir ne man loolu laa gëm man damaa jàpp ne suñ tubaab bi muy ñëw jamono taalib Jaalibatul rek ko taxoon jóg loolu laa gëm sama gëm-gëm la man waaw jël but rek ko doxalu jóg buñ ko taalifee ba noppi daanaka li ci des yëpp ay formalité la rek waaye jël but ko doxalu jóg loolu mooy sama gis-gis man ndax foofu la ma jël but yóbbu waaw day doon nit koo xam ne day fel del del del nee na bunti gërëm yëpp buñ leen dajalee bunt bu mag bi ñu war a jaar pour ñu confirmer leen mooy jël but maraaxit yi man alayhi wajhali nisaab baabarida baabarida la wax maa ayaa di kan sam tax am na loo xam ne jar na rek jàng jàng bi su maraaxit ba maraaxit waxat la ko jumlata maa taxtal jar na jàng jàllab tu maraaxit si am murit bu jàngul jàllab tu maraaxit it araam na ci am murit te amu ko waxam li man xafisahu aw xasala wala mu ne aw ahaana ala taasiliha képp ku sonn ngir am ko képp nga dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te waxoon na si yéen sut ne ko na ngeen góorgóorlu ci xasida yëpp baax de waaye xasida googu yi ñuy wax jàllabatul maraaxib ak nuur daari yi ngeen ko di am na ngeen ko di am daan ne ko sa sa sa yenn sa sa xamal na ma kat ne ma ci mbég moom ci mbég nee na ku ko am boo ko jàngee boo ko jàngu waaye yaa ngi koy war nga teg ko fa nga ko war a teg yonent bi warloo naa ak yow nee na ay ay bis gu jot dina ñëw jàng ko tefli la ko demaat ay bis gu jot dina ñëw jàng ko ba mu jeex mu tefli la ko demaat. jàng rek man de jàng rek. te xasida Sëñ Tuubaa ma xamal leen ci lenn ki mun ta wax nga xam ne daa muuma moo gën a mën a jariñu ci xasida Sëñ Tuubaa kiy wax sax xool rek kon waxab lu woo jumlata maa taxtaaru te waxut tamaa alayhi min sunu bi la wax waxut tamaa alayhi min sunu bi faral lépp loo xam ne nekkoon na ci moom ci ay ci ay ci ay bàkkaar ma ne suñu borom dogal na ah waaw noonu na ma koy nag loolu da ko yaa maari an bi jaay sunu yow loo far mu faru ni nga fare samay bàkkaar man Ahmadu ba muy bàkkaar faraleel ma ko bàkkaar yi ki bi yaa maari an bi jaay sanoo bi wala mu ne yaa maari an bi jaay sanoo bi waxam li man yaqrahu aw yaktubu képp ku ko bind maamu jàng ko na ko may xayral mu naa xayral lan xëyru mën a ma ngi ca biir xëyru xëyraat li nga gën a fonk ci ba tabaxu kër gi da nga ko cay denc tabax ab bâtiment ca biir kër gi ne da ko cay denc tabaxub néeg wutub def ko ca biir wëlis foofu wëlis soo dugalaat ko ci wërin wëlis denc ko ca soo ubbee loolee loolaa xëyral mën a waxam li man xafisahu ku ko mokkal aw xasala wala mu am ko mu ne ko da koy am da koy wut yi da koy àbb wala da ko mu ne ko bi ay wacc yi nu mu def ba am ko baax na waaye naa ko am rek bi nabi yi amala kon jaalibatu maraaxit jëmm la jaalibatu maraaxit li muy def ci doomu aadama kenn xamut nu mu mel ndax dafa am lu nekk ci moom loo xam ne xasida yi nekk bëriwul ndax boo xoolee yaaman bi yi ci nekk yaaman bi yoon xone ya taaminu yaaman bi yéen xo jihaadi këramu yaaman bi yéen xaaturi ujur yaaman bi tan xon ya taaminu yaaman bi yooyu yëpp boo ko xoolee yaaman bi ju nekk lam ca teg xëlimaa tënku nee na bayit bi nga xam ne bi ma ko moo gën a reetaan loo yonent bi gën koo bégloo ci jël bi du mën a xam mooy yaa li ma axtar ndax nee na bi ma ko waxee dama bette yonent bi bi ma waxee loolu bi daa yaakaar ne dinaa teg leneen bu taboo sañ borom laay wax ndax dama ko ne yaa ma yëquud li yema mi nga xam ne li ma bëggoon lépp yaa ma ko indi nee na mu yaakaar danaa ko sant naa la wala gërëm naa la mu ne ko salli ala man ismuhu muxtar bi jiit ju ne ko ahmadu bett nga ma jàppoon naa ne da nga wax leneen lu dul loolu ndax fu mu teg yonent sallallahu alayhi bi mu agsi ba ci sali bi si xalaasil faraji badri tamaami ci la ko boromam ne ko na doy na li nga wax doy na sëkk sëkk sëkk yonent bi jug taxaw na ko li nga wax doy ci la doo ko soppi xëlimaam naan ko euh, euh, yaa rabbana sal wasan samala xalaa karim kulluhoo xalal basiri xalaa nangam euh, waali wasa bi wax fekk leman nag waaw dana ko léegi ginnaaw nag nee nga naa na yi na suñu borom daal di jël këyitam ak xëlimaam nee may wax muy bind waaw nee na ma ne ko nag waxab loo jumla damaa taxtaaru dëkk ak wax fir lu kulli man yaqra'u ak wax fir uh, uh, uh, wasalimin alayhi wax fir yaa xafuur wax fir yaa xafuur li qaari'ihi waanin bihi nafuur na nga nooyal xolam ba noppi jégal koy bàkkaaram yëpp te lum lum lijjanti kon lijjanti waxab li man waxab waxab li man yaqra'u maa yaxbitu bihi siwaahu yaa jamee ñu sutu xoolal loolu sëñ bi xool bi mu agsee ba ci tarjumaan ji nu mu ko nu mu ko defee soppi mooy xalima ga loola leneen loolu xam ne mënu wax ci rajo mooy ni mu changé bëru bi ne yaawoon amar sax xam nga ina laa ina laa malaykatu yu selloo na la wax teg ca la béykat rab bii ba ma see waxut ne xaa ilan xalaa kiram xexe waxut xaa ilan xaa la wax bi mu demee ba ci biir ne ne amartanaa la wax amartanaa mu yaayoo la si ne amanu sallu moo tax mu ne amartana bi an nusalli ala kon kay sayidina manil bariyata ala kokkan la mu ne muhammadin wa an nusallima ala yaa baaxin ab xeeta saram alxura kon kay fasar fasal li sarmadan moo tax bi mu agsee foofu mu ne yaa man amarta sawil imaani kulluhumu yow mi nga xam ne yaa digal képp ku dib julit loo leen digal bi an yusallu ala almuxtaari fi rusuli léegi sama xasida gi lépp ay julli la am na yoo nga wut na ci ñeneen waaye sama bos laa bëgg nga nangu ko mi nekk bala na salaatan xat nafastu biha mu ne ko yéen ak yéen mu ne ko nas man li wàcci ka way yi ma way laa wax yaa man xat maa gasali daana ko nag faq bal nisaane yi ah. du it de ko dafa fonk jaaributu nas man li wàcci na faa waaye faq bal nisaane yi wax ba noppi nag wasax yi ak jëf yi kullahu karaman daf koy taraanga ah, wala tarudda la yaadan lii min al amal faqbalu minni fadlan laa munaaxasatan ay ngëneel ki bëbbal yoo xam ne doo ko joxe ci keneen keneen du ko amati ku du kii jàng jàll bi ma waxut bi xëy na ana añ li bii amali uskur bi fadlika sax yi maa ngi ñaan maa ngi sant bu baax di la gërëm ci ngëneel yi ma jox ba ma mën a def jëf ji war na yenn bii yaa am bii surtout sa hadi wala am amee antal karimu la si aqi ta karamu ko yaa xayri haadi hadaani abdala subali kon ku jàngatu maraxib mënoo dëng ku jàng jàll bi maraxib mënoo dëng koo gis muy jàng jàll bi maraxib dëng rek jàngut jàll bi maraxib ak moom te nag jàpp jëli bëtu bukkut ak jëli bëtu jàpp la am na ñu topp ci jëli bëtu bëgg jëli jàpp leen te jàpp gu leen waaye ku jëli bëtu jàpp boo ko xoolee xam ko ta wooy wi li ko gën a tax a nag bi mu agsee ci mujjantal gi foofu nag la la la la la dawa yaram la dawa yaram ndax dama ko léegi daal ci gàttal du mën nisaama du mën nisaama ilaa sax yi si haabi xadama simi allahu akbar xoola loolu du ma nisaama ila sax yi si xaabi xadan te nee na man lu ma waajo lu may wax rek dama koy confirmer di ko wax ni waaye fekk na mu am bu yàgg suñ borom moo ne ma ni nga may ñaanee neex waaye loo ma bagage yëpp sa tur laa ci def ni nga ma koy ñaane rek a neex ci man ndax prise bi nga koy ñaane ni nga xalima gi nga koy ñaane mooy rof prise bi ba yëngal sama aras may xam ne maa yàlla sa xalima mooy jaayu ci man ba ma xam ne maay maay rabbul si jëlawul ikram ni nga ma koy ñaanee neex waaye bagage yëpp turu ci nekk maddal yel xusna wa maddali sayat man li yaqulu haaka xablu maddiya soo naa ma may na fekk ma ngi la jëlal bu noppi moo tax mu naan wa alihi wa sahbihi yaa man jaxal maa ngi nag ma defal nangam fan jaxal far nga def ko wa alihi wa sahbihi yaa man jaxal xatti ka xidmatil xiyaar yi sama mbind mi na ko def mu mel ne liggéey yëpp yu baax yi fi jaaroon ba nga gërëm leen te suñu tubaab buy ñaan dara bu ne tey ji waccal bii nas mee faw xasaw mi du jaagee ni maanaam ak koor nii rek de koor gu yàlla nangu ba teg ko fa nga ko war a teg la wax waaw waccax li wacceekal karimi xatti barakatan xatti barakatan lil wisri saati xatti taw boo xam ne day taw di xéewal di taw yi xéewal yoo xam ne fii ba ëpp tukki mën na koy taw te du sewit ne na na gën a kawee sama xasida yi waccal bi jaayil Moustapha xuruufi min asami buróori wal maruufi lépp lu baax luñ xam wala maarifa di ko defee wuti wala mu koy yóbbu ci yàlla wala lu ma doon ne ko sama xasida yi gën a sama sama jaalibatu bi gën a gën a gën a a gaaw ca loolu waccal bii das mi fawxa salmi fawxa salmi sama xasida yi nag mu ko defal mu gën a kawee koor goo xam ne sa jaam da ko woor ba nga ne ko gërëm naa la ci koor gi bibliothèque ba nga ko def ne ko sama xasida gi gën a kawe kii jàng sama xasida gi waccal bii nas mi fawxa salmi ba noppi nag ginnaaw boo ko defee ba noppi nag loo bëgg a fegg loo xam ne du ca muy waxee yi wa xayrihi min maanihaati law mi lu mel ne aj màkkaak natrasa kaak yi ca des doxu mbokk yëpp kii jàng jël bitu maraaxib te yaa ba jite nit di refe lool di ko am kii jàng jël bitu maraaxib te ko def ko jox ko àqam moo gën a kawe loola wa xalidi tafsiri wa taamina lii abadan maharida amina moo tax xa xas jël bitu maraaxib euh, bu ñu la nee mooy awakaab xasida yëpp boo ko xoolee fi ne boo demoon ci noor dari nii sëgg ci moom bëgg am looy liñ la jël bitu maraaxib taxaw sa kaw nelaw bi kitaabati ya rabbi rabbi kun la mu taalihin wacira amutu lay wax wacal kitaabati ya kal ahmali salihati gars baax yi seen jëf yu baax yéena yàlla gërëm ba wutal leen seen saal boo xam ne saal individuel la boo xam ne kenn du leen ci fekk sama xasida yi na ko kawe waccal kitaabati ya kal ahmali salihati li yoxut amaal yi kon ñun xasida defaluñ suñ tubaab yi tax mu ñu ko waaye nag ñàkk jox gëdd bi tax na man damay wax ne adduna sépp dañoo waroon a jël xasida yëpp denc ko ci bibliothèque benn xasida du génnati ñu jël benn xasida képp muy gis bu ñu teg ko ci taabal ji muy faj ad muy faj aajo yi murid ak adduna bi ba mat ñaar fukki at ñu xam ñu gën a xam dix dix saa yu xasida su ko defee su ñaar fukki at yi maye ñu naa ah, ñaar fukki at yi man na kat léegi nañ nañ noppal jos bu fee te génne ma waaye bu léegi nag seekal bépp adduna bépp maaye bu rek moo fi dox ko am aajo ma waaye boo koy faj ba maanaam ñaar fukki at wala fanweer ñu doog a génne mu xadamaat waaye fi ne xasida yi jóor gi ñu ko jóor ci suñ kanam kenn ku nekk jël benn dinaan mos mooy sama bos moo tax mënuñoo xam itte ji ñu ko war a jox looloo tax fokk ñu joxaat ko bay waat ko xel xasida dafa dafa day sëñ Tuubaa lu sëñ Tuubaa di yenkee wa tan te nee na man sama mbind mbindum sëñ Tuubaa daa bokk wabi kalaamiya wabil isaara ihdi muridan la wax nee man uhum rek moo ko waxee sama sama murid jindee ko tegee ci salaatul mustaqiim uhum waaw uhum rek boobu kalaam yi boobu isaar la wax sim bi mu dikkee bi coow li bare ci bi tu ñi ko naan dañ koy ragal yooyu sim sut bi mu dikkee di balaa Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa la ko tontu da ko ne Mbàkke de xanaa jël bi la ci ci ci ñi ko am sutu wabi wabi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaali yi li wa rabbi loolu ko sëñ bi tontu ah kon de kon wor yëpp war nañ cee jiw sóobu te te te mu ne ko bi kalaami yow bi isaar eedi muridan foofu rek la yem nag moom eedi muridan hmm? kon maanaam bayit yi jaalibatul maraaxib ak nii nii yàlla ni ni ko yàlla mayee suñ tubaa ndax boo xoolee askuruhu sukran yajuru sayda bisri askuruhu guugi bokkut ak sakartuhu ahmaduhu bokkut ak askuruhu boo xoolee lu mel ne jës bu boo xoolee ma ngay wax naan alhamdu lil haqqil mubin alhamdu lil haqqil mubin ñu ne ko kan mu ne man kawnuhu li yabin ñu ne léegi buntu boo jaar ba mën a am loolu mu ne alal kitaabil mustabin maa jami ni am xam lu lu mu ca teg ahmadu rabbi al xasim boo neyaate ba ci biir lu mu wax askuru sal xasin majid la wax kon ahmadu rabbi al xasim bokkut ak askuru sal xasin majid waaye askuru sa xasin majid am na lu ko gën a garaaw muy sakkartuhu isqasani bi xidmatin askuruhu waxaadali abdaala bokkut ak ahmaduhu ala xurujin min dar te te suñ tubaa bu ci biir jële bi te am ñaanit ci ñaan boo xam day mel dama bëgg nga defaloon na ki jàng jële bi tu nangam comme ni nga ma defale xool loolu lu rëy la sëñ bi ni ni ko defalee sëñ bi mu ne ko ne mu ne ma ko defalee noonu ci kooku kon ku jàng jëli butu am lu manqué wala am lu ñu war a confirmer rek xoolaatal sa bopp jëli butu say loo wut xasida ci boobu moo di wut dara xasida ci boobu moo defu wut dara saa na fay bilaa dara yi la si am sut suñ tubaab waxoon si am sut na ko am sut de sama borom bu ma yebaloon ci tubaab bi ne naa fayu ji danaa ko wax mu defal ma lay fayu ci nit coxor gi nekk ci nit ba mën a fayu danaa ko ñaan mu defal ma ko ci man ndax daa nekkul ci man nee na man njariñ rek laa mën mënu maa def leneen saa naf bi laa dara daana waaye nag sama moo taxaw taxawaayam loolu ci man fayu nee na wax lu dul noonu maa nga def moom lu noonu sama borom mooy jug taxaw ndax moo ne ma ginnaaw def dindi naa ci yow lii fayoo bàyyi ma taxaw taxawaayu fayul la goyoo suñu borom day jël aw yet teg ci wetam jël wu xeer teg ci wetam jël fetal teg jël lu ne teg ci nga dégg kuñ ne dañ ko dóor bal fii léegi mu faatu nangam naa moom kii tawarkaal fekk na am na lu mu tooñ sëñ bi suñ suñ suñ borom daal di jël fetal ga yebal ko ci kenn jox ko kenn mu guréel dangay gis ko génn ci mbedd mi ñee dañ koo xaañ te defut dañ koy xaañ ab dafa ko xaañ daf bu la xaañ kenn mënu dara fekk yow am na loo wax sëñ bi loo xam ne suñ borom moo yebal daf bi mu xaañ la ba kenn ci mën dara noonu mooy mbiri sëñ bi dafa am yu sew yoo xam ne kenn ku nekk nag fa sa Moustapha toll ngay wax rek ak pas-pas bi waaw lu ma leen ci wax rek da ngeen mën a gis daal di gis seen seen li ngeen li ngeen mën leen ko waxee waaye tey loo xam ne xasiida fu nit àgg fi may waxee moo ko fa àggale waaye nag suñ tubaa dafa bari ay roqu bu jàng xasiida ba waa kër suñ tubaa kenn déedéet déedéet bu jàng xasiida ba man duma ma ti kenn ma du du ma man sëñ bi sëñ tubaa mu jox ma jaal bi du maraax bi ne man naa nga déedéet déedéet jaal bi du maraax bu la joxe dara bu ko joxee doo wax xasida bu laa ne fu mu la féete dëgg dëgg dëgg am na fu mu la féete yoo rek di wax waaye ko moo tax xoolal lu mel ne wakkaana xaqan bi ko sëñ bi taalif ñaari yoon waaye xoolal bi mu ko taalif ci gànnaar xa jël euh, wakkaana xaqan daa nekk ci géej gi génn ci géej gi demaat ci jéeri xam nga dafa njëkkoon wax te as as xib as xib la njëkkoon wax ah ko ne as xabta as xib ku ne xam ne ne bokkut ak as xabta nafaxta naa bokkut ak nafaxta hum tax xasida googu bi ko bi mu ko bindee ci gànnaar ku ne xam na naar yooyu nga xam ne ñoo taxoon sëñ bi bind ko ak la leen taxoon a jóg ak yitte gañ amoon ñu gis ne yonent bi na kum ca feeñu xamal ko xutbu xutbu bi nekk ci kaw suuf yor jëf yi borom jamono ne leen bu ngeen demee mu defal leen li ko fekk ci guddi gi yi waree ñëw ci la sëñ bi tan xasida gi jox seen sama seer ñoom te boobu naar yi ak bi ñu agsee wax seen i décor wax seen lépp wax a àggal sixième jour suñu tubaab daan ne sixième jour dama indi la wala si mu daal di génn xasida gi mu ngi génne xasida gi daal teg bi mu ngi génne xasida gi sëriñ bi daan da daal di jox bi bi naar bi rek nangam jeex na nangam jeex na nangam amut yaa man dara nangam amut man dara mu daal di fab xasida jox sixième jour ne ko joxal naar ki ki ki seen ji mu jox ko ko mu daal di tàmbali di jàng fi mu taxaw rek bi mu tàmbalee jàng rek bi naar bi tàmbalee jàng rek waxtu noor la waaye dafa xiin da tàmbali du sax bi mu ne wajaxtu kulli bi xam ne wa sukkur rek bi tàmbali di taw siim sut nee waaye li ma jaaxal mooy man maa ngi taxaw sëñ baa ngi taxaw naar yaa ngi tooy xëpp waaye fi ma taxaw dara tiimu ma sëñ ko te kenn tooyut ñu ñaar sëñ Tuubaa mi sëñ Tuubaa mi ngeen jàpp sëñ Tuubaa yi ni am sëñ Tuubaa bokku te sëñ fa mu nekk dafa sori kenn mënut a àgg ci sëñ dalay gàttandu rek yàlla nañu gàttandu boppam ci daraje xasida yi ñu ngi jégalu bu ngeen kii bi te itam maa ngi waajal ak kii te ne gis nga sax am kii ba ne boo xoolee lii lépp fii ay xose xose dañu bindal la waaye bi accès ba téye micro bi suñ ci wàllu defaat la ngeen du bees a yaakaar naa a ñu gën ko bàyyi xel waaye nag na ngeen xam ne am na yeneen at yoo xam ne buñ ci àggee Sëñ Tuubaa ak lislaam Sëñ ni mu demee ba dikk xasida yi fi ne dama ko raay raay ci kaw waaye duggaguma ci biir si xasida ndax eh, jaaribatu mi nappeeguma ci maanaam lu mel ne yi nóor daare ni mi eh, diggante ak Sëñ Saliou ah diggante Sëñ Saliou ak Nuuru diggante Sëñ Saliou ak xasida diggante Sëñ Saliou ak Sëñ Tuubaa fas fasam ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa Sëñ Seex lu tax mu nekk mujj nekk xalifa yooyu yëpp am na ay yëf yëfaan yuñ a yuñ ci mën a wax suñ jàmbaar ji nga xam ne ñu ngi koy waajal itam bu Cheikh Abdou nga xam ne ñun ñëpp ko war a sant delloo ko njukkal kenn ku nekk am na cinquante pour cent ci sa sa murit ndax du wër moom dara du jàkk ndax moo ñu seen mat lagul faw say ni moo ñu ko génneel defal ñu ko leen bëgg te yaakaar yi Sëñ Tuubaa jooje mu waxoon ne am naa ci moom yaakaar yaakaar naa loolu fee ñaan na ci suñu diggante Sëñ Abdu Lahat ci dox yi dañuy wax ne doxal na ko te boo xoolee jamono yi Sëñ Abdu Lahat feeñ xoola xoola yéen a ngi dégg Touba li xew yi ay ñu fay woote naan Sëñ Touba nii am yooyu ñu fay woote ci biir yoo xam ne kenn mosu ko mën a dégg jamono Sëñ Abdu Lahat amoon na waaye nu ko Sëñ Abdu Lahat diggante daa yónni ay ndaw dinañ ko gëstu ba ñëw ndayooñu ci wax waxul wóor mu gëstu seen kër yi ndax ñooñu dañ daawul ci jumaa ji daawul fi si mu ko gëstu ba xam ko waxtu guddi rek jël otom taal ba àgg ci ñoom ñooñu jóg ndar nuyu ngeen nuyu jullit bi gën a wóor ci jullit daal mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi a joxe loxo mu wa rahmatullahi bëgg a ma mer daal bëgg naa ko lijjanti daal ni yéen kat daa am ma bi doon ko gëstulu bi ma koy gëstulu nag ba mujj ñi ma ko doon gëstuloo doy nañ ma ca waaye lañ ma wax teg ci sama bët may gënal gëstul naa ko sa ba xam ne lu ma leer nañ la nag bu ma bu ma jàkkaarloo yi am na leen wax moo tax ma ne naa fi ñëwal sama bopp yéen kat damaa dégg ne da ngeen fay nekkoon nekk ci dëkk bi mu mel ne da ngeen fiy dunde di def li ngeen fiy def waaye yàlla dogal mu mel ne suñ jumaa ji da leen a doy ji nag ginnaaw doyu damaa yaakaar ne xanaa ab dëkk bu la borom ab jumaa bu la doyut nit bu la jumaam doyut ab dëkk wóolu laa doy ma bëggoon daal ginnaaw jumaa yu doyu leen ba di ngeen fi génn di julli ji faneen ma bëggoon fii ay bis su ngeen mënee waaj ak lu ngeen fi am ngeen génn dëkk bi bëgg ay amal ma ko te bu ma leen fi déggati mukk su ko defee daal dama boobaat naa xam ne yéen nit yi ful la ngeen tey li ngeen bëgg jaral na leen lool bu ngeen fi gàtte la yeen loo xam ne ñëw na bu ngeen ko deful nag na gisaat seen kaw na ngeen xam ne murit yi moom wax rek laa man waaye mënu ma leen tey ñooñu ci guddi gi la ñenn ñi génn dëkk bi ñenn ña nga ca ginnaaw ak ngeen ginnaaw fi ñu fa lañ nekk xool saafara sos ñu gënee gaaw sax ah waaye nag léegi civilisation bi am ci murit moo tax daanaka léegi li ñuy bëriwul léegi bu njëkk da ngay dégg lu ñu wax sëñ bi wala ñu tudd Cheikh Rafal wax ko dara ñu jàpp kooku dóor ko ba mu dee ba nit ñi di barkeelu ci dóor ga ñi bu fekkee sax ñu fekkewut néew ba sax dañuy sànni aw xeer fa néew ba nekkoon ko ñu xam ne am na xam ne xewoon ginnaaw léegi da dégg ñaan dégg li ñuy wax sëñ bi kon murid yi ni ñu sedd léegi sëñ sedd gi ci murid yi dañuy wax sëñ bi lu rëy nga war a yuuxu daanu dem nangam daan kooka yaa ngi dégg ngi naan saa yi dégg li ñuy wax ñu naa kooka dana waar ñaan na sëñ bi nag sëriñ ko def xool loolu sëriñ si nag ñoo dafa sedd léegi ñoo sedd moo tax benn muritum Baay Faal nee na ma yoon yi du gaaw a jagaat mu ne ko mu ma daa am luñ lu ci bokkoon mu ne ko mu ma Euh, euh, euh, futti ginnaaw ak tuuti ndey. ba mu fi jógee rek lañ bàyyi lañ lañ lañ fi. duma duma ba fi loolu jógee rek lañ la ñu tàmbalee. wax nañ dëgg de wax nañ dëgg. loolu dañ cee a dellu si waat nekkaat murit bu dër bu wér. dana ñëwaat nag sëñ bi dana ñëwaat loolu ñëwaat. dana ñëwaat. dana ñëwaat indiwaat sëñ Tuubaa originalité sëñ Tuubaa bi di ko dundaat te koy te nag waaye nag ngërëmul sëñ Tuubaa li gën a gaaw mooy jaar ko ci xasida yi gën a gaaw nañ ko nañ ko fi jaar am murit day jàng xasida di leen jàng ci xasida yi dañ ko def murid yi nañuy jàng xasida na ñu nekk ci réew mi Serigne Touba xasida na leen boole di leen ci xasida yi tey warmaal waa kër Serigne Touba yi ndax kat kilifa nee na ma Serigne Touba nee na sama ñoon ñi ànd ak man te gëm ma de maa ngi leen di xamee ci sama njaboot gi maa ngi leen di xamee ci sama njaboot gi waaw nañ li sax rek roy ak romb kese koo gis sëriñ bu ñu naan nii laa naa la sa yoon ne ci su ko sa su ko sa xaw mayee nga yëkkati sa addiya jox ko mu ñaanal la def ko la lu ma def lu ma doon sa yoon ne ko nag bari na ci ñun teel bi ñoo xam ne maanaam ay bi sëriñ si ñor nañu lool bàyyi suñu ay bopp ndax dangay fekk sëriñ bu fanaan julli bu ba doo ko waxtaane waaye boo fekkee sëriñ buy tox ki sa gara nga fekk naa ko fay muy tox moo ne gis nga ko muy fanaan julli te waxoo ko de waaye daal ci gàttal kanaa bu mën a am kanaa comme yéen ma gën a xam li ma wax kanaa bu am suñu diggante ak sëriñ si maanaam sëriñ si ñun talibe yi am na ñu wàcc seen yoon waaw talibe bi bu melee ni war a mel dëgg-dëgg du gis ci sëriñ bi lu waaye sëriñ bi it bu melee ni mu war a mel dëgg dëgg dëgg talibe bi du gis ci moom lu muy xebet kon bu defaru amee ñëpp war a defaru nag ñu defaraat toogaay jëkkalaat ko te nag bàyyi ñi mbuboo seen bopp amusul jaxte mu ñëw di leen gëmloo boppam di leen ay tirikaasam te bu leen koy wan nag di day di photo suñ tubaa na leen da di woo ci sëñ bi ngeen waaxu di ñëw mu leen woon sëñ bi ñu naan leen nii ngeen waaxu di ñëw ba si ci moom naan teg lépp fii wan leen boppam am na. sama classe gi yëpp dañ lay woo ba nga ñëw ñëw wan la seen bopp di la wan big luñ def ak big luñ gisee sëñ beeg lu leen sëñ bi wax ak yooyu yooyu concerné wu leen waaw. ab télé bi daal li mu seqagum sëriñam mooy nuyu ko jox ko addiyee mu ñaanal ko. yow booy joxe yow taalibe bi joxe woo suñ tubaa nga jox sëriñ bi buy ñaan ñaanut suñ bee ñaan ñaan te suñ tubaa du jëmm juñ ko mën a liggéey yi nga gis jëmm ji ñëpp di xat-xatloo daa am ay jëmm yu mu yebal kon nañu gën a góorgóorluwaat ci defaraat tuwaay xam naa rek am na benn kare boo xam ne su ñu ko jëfandikoo baax lool daa xew kare bi mooy lan mooy bëggante ci seen biir te jëmmi suñ tubaa tax lu am solo nga ñoom sëñ bari na yuy xew ci yëf yi pas-pas bi mooy des ci sa digganteeg Sëñ Tuubaa bari na kuréel yu bari yu tas yoo xam ne bëgg addunaa ba lal moo tax mu tas bu diw jiitee daayira bi duma ci bokk bu dee kuréel bi ñuy jàngi diw ko jiite bu fekkee mooy daal ni mi daaj ji néexuma du ma ci bokk bu dee diw yor kees gi di ma teg ndax diw moom bu ëllëgee moom moo lay fay lu sa yoon ci diw te li ma ne wax yéen a ma a xam ak ci yàlla te waxtaan bari na ñu tas dëri ma suñ bàyyi nangam bu fekkee moo ko jiite man néewu ma waaw suñ bàyyi nangam nga la tax a liggéey yow wala suñ tubaab la tax di liggéey ñu ma ta bàyyi xel la te nag fab ngir jëmmi suñ tubaab ñu bëggante bëggante te yàlla rek tax dimbalante dimbalante bu wóor alal yi adduna du taara taara taara dara bi bis boo sax loo bari la bari la boo rombee fii gis la wumu te doo ci man dara te li nga yor xaalis bi nga yor yow di sa poos ba tax nga yëg sa bopp di nangam nangam am na tubaab bu la ko ëppale ba noppi di ko naane sàngara te mënuloo ko dara ki gëmul yàlla ci nga koy ci moom te danga koy naxtaan ba am ko kon jërul jaay xam nga lu a jaay lu gën a lu lu jara lu jara manifesté woo fi ma waxee yow mooy murid saadix bëgg sëñ tubaab am jax tàkk te bañ ko boole dara koo gis dimbale ko te tax te bu mu nangu xam bu mu nangu mu xam la sëriñ boo gis teral ko loolu li tax nga yàgg nga doo yàgg ci réew mi da ngay dem ak dikk da ngay am xaalis waaye rek bari na nit ku toog yàgg fi lool nanga naa na xoolaat boppam na xoolaat boppam ba xam digganteem ak Sëñ Tuubaa amul lu mu mas a def Sëñ Tuubaa wala mu am lu mu def mas def Sëñ Tuubaa ci ab taalibeem buñ mel ni ñu war a mel soppante te yaa kenn ku nekk sa bopp gënal la sa morom ñu koy def sax ndax liñ ci liñ ci am ku ne xam ne ne kenn amu ko ci kenn ku nekk fii sa moromam mu la gënal sa bopp waaye nañ koy doxee di ko waxee buñ leen woowee téléphone ngeen di jël bu ngeen waxee ngeen di ngeen di ngeen di bu la sa mbokkum teel bi nga jël ko wax ak moom jox ko sa xalaat soo amee loo xam ne gis nga ne lii du noona nga ne ko sëñ bi ñu ngay jarde waaye nag teel bi it léeg-léeg ñu naqaree li jënti ñun ci suñ biir ndax dangay gis bu nekk ci ko neex nga dikk di ko lay na ko sëñ bi bu ma sañoon nga sap soppi doxin ndax naa nga mooy sëñ ma yaakaaru mu la ba nga may jox ndigal le léegi loolu loo ci man sëñ bi ah loo ci man mënoo ci dara boo ko dee lay biire sëñ mooy la man yaakaaru mu la ah loo ci man dafa am bés ma toog ci kanamu jumaa ji man ak suñu sut ñu toog ci kanamu jumaa ji foofu ñuy faral di toog rek suñu na ko ñu toog ba yàgg am ko ci kanamu jumaa ji noonu mooy foofu ci war ma ji rek bi mu solee ay dàllam jaar fi ñaar ñaar ñu summi moom mu sol am ku nekk ci wetam daan ne ku toog ci wet daan ne ko sëñ bi ñu ngi jégalu de dàll yi summi ko mu ne teg faliwu ko mu waa koy fett sawaat sëñ bi dàll yi te foofu sëñ falu ne woon na mandargam texeetig doomu aadama mënees na koo xamee foofu ci sol bi daal suñu fa la ko xam waaw ne texeetig doomu aadama dëgg-dëgg boo ko xamee boo ko bëggee xam rek seen seen ko sol foofu ay daal la nee na fu mën a jaar ci la bokk kooku di ko labiré naa ko sëñ daal yi di ko labiré mu mel ne ko ko dégg am ko nekk ci ne ko sëñ bi dégg na la bàyyi ko lu waaye def boppam bi mu ne waxee loolu ko daa koy tontu loo xam ne kenn mënu ci daal ndax bi mu gënee lu waay def boppam ki soloon daa gis na ko ba nga loolu nga war a noppi <laughs> ba nga xamee lu waay def boppam nga war a noppi loolu léegi loolu kooku boo ko te bu njëkk bu njëkk teel web seeraayam Fall ko fa bu boo ko fekkee ci loo xam ne bu ko fa seeraayam Fall fekkoon duma ko mbaa mu xas ko si da ko suñu Massamba suñu Massamba Diouf Sam da koy dóor mbaa xas ko te boobaa tëri bi day nangu loolu tëri si Abdourahmane Lo mën naa jadd jadd jaddu yoon sëñ sëñ sëñ sëñ Mbaye Sarr fekk ko fa jubbanti ko mu nangu waaye léegi li xew mooy sëñ bi ma ne yaakaaruma la soo amee conseil yooyu joxe nga jox ko sa bopp waaw sëñ bi kooku kon kenn ku nekk sa bopp la te kenn ku nekk yow ab sëriñ yow yaay sa sëriñu bopp yaa sa kiimaani bopp sa génti bopp yor sa bagage yi bopp loolu la mu a sottee hmm? mu mën a sottee léegi li xewoon li mu war def mooy kenn ku nekk nga jàpp ne sa moroom la gën gis nga suñu tubaab dafa am lu mu wax ci xutbu xutbu maa ngi ko doon firi ci euh, bu doon jullee xit euh, fa itali ñi koy firi dañ koy firi te dañ ko dul firee ni ñu ko war a firee dëgg-dëgg mooy moderne ko bañ xam li sëñ bi jubloo wax mooy wala tatlubal karama bi xëyri taqwa mooy xutbu korti ak tabaski boobu fay nal karama huwa taqwa lu rëy sañu noonu waaye xamuñu ko na ñaan bul sàkku tedd nga ci lu ragal yàlla déedéet wala tatlubal karama mooy bul sàkku personnalité bi xëy taqawaa ci li ragal yàlla ndax na nga xam ne kat fay nal karama na nga xam ne personnalité dëgg dëgg dëgg dëgg huwa taqawaa mooy ragal yàlla mu indiwaat walillaahi izzatu wa li rasuulihi wa lil mu'miniina te te bi nga bala ngaa xam ne mooy ragal yàlla dëgg mooy personnalité nga làqatu def lu ñuy tere bañ fekk la fa gàcce ga ngay am da nga xam ne personnalité dëgg mooy ragal yàlla suñ pas-pas bépp nag suñ julli yeeg woor yeeg nafila yëpp ñu jël ko jox ko yi suñ jubaa sëñ Abdou Lahad dafa toog ci beneen julli timis ba noppi am ñu nekk ci ginnaawam même ne asalaamaaleykum daan addiye suñ juwaa wax ko ca kaw mag ñi nekk ci ginnaawam daan waaw Mbàkke mu ne mbaa du ngeen ko def mbaa daa bees ci yéen daal jóg def noonu muy def rek fetta su kii faas loxo yi noonu ba ma xamee ne Abdou Lahad laa tudd ba léegi xamee sama nday jur bi ak bi fàttaliku ma fu ma ne ci julli te néew ma addiye suñ juwaa daal jóg taxaw daal ne ñun dañuy sëgg a sigi rek ba julli jotee moom képp a julli woon daanaka suñ julli yi a baaxu ci te buñ ko ko joxee ko dara da koy defar ba mu baax mu delloo wàññi ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah.